asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñoo ngi musu ci seytaane di sant suñu borom di ko jéggalu di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko safoo di ko ñaanal xewal di sant sëriñ bi di ko ñaanal suñu borom li ko gërëm di nuyu kilifa yi fii teew ci jotaay bi yépp di ko tàmbalee ci ki nga xam ne moo jiite daayira Moukhaddamatoul Khidma mu sëriñ Afee su alimaam di suñu nijaay ñu koy siyaare di siyaare waa daayira bu baax a baax ak mbooleem rek ñi nga xam ne teew nañu fii ci jotaay bi di jottali ay ziyaara yoo xam ne day tàmbalee ci Maolana Cheikh Mouhamadou Mountakha di ko ñaanal suñu boroom yàggal ko fii te dolli ko wér dolli ko kattan di sant bu baax daayira bi ci jotaay yu am solo yi nga xam ne miin nañ ko weeru saa weeru koon ñëwee ñu di ko taxawee ak mbooleem rek jëf yu am solo yi nga xam ne ñu ngi koy def ci barab bi di fi liggéeyal sëriñ bi féete fii féete taxawaay boo xam ne mutu yëpp la ñoom ñu nekkal suñu mbokk taalibe yëpp kon loolu ñëpp amel nañu leen ci ak cant di ñaan suñ borom barkeel ko def ko muy liggéey bu bu bu ñu nangu. ni ko sëriñ Assane waxee euh, tomb bi ñuy waxtaanee mooy ay ay bind ak ay jàngat yu ñu mën a def jëlee ko ci dundu Cheikh Khadim radiyallahu anhu arda euh, muy waxtaan woo xam ne kon moom lañ wax ne moom la war a waxtaanee muy tomb boo xam ne tomb boo am solo la liñ ci waroon njëkkee sax muy laytaay gi sëriñ Assane ni mu ko tàmbalee. daanaka rek xawees naa mën a doyloo loolu muy kon euh, tomb bu am solo boo xam ne am na solo ndax ñi nga xam ne dañoo jiitu ñëw ba jàll moo xam ay yeneen si lañ moo xam ay nit ñu baax di jël ay bind ci seen dund loolu lislaam da koo fonk loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam alxuraan doon na ko daan na ko nettali léeg-léeg mu nettali ko ay nit ñu baax ba yàgg mu ne ko ulaayika allazina hadallah fa bi hudaahum iqtadi ñooñu kat suñ borom ma leen bindi moo leen jubal nag mën ngaa roy ci ñoom kon ñu baax ñu yàlloon ñuy jàngat ci seen dund ñu dimbale ci suñu euh, ngir ñu mën a jubbante suñu maanaam di jàngee ci suñu démb seen démb ñoom di jo mën a tabax suñu tey ngir joyante suñu ëllëg euh, loolu xam ngeen lislaam alxuraan soññu ci julli ñu ba tàyyi euh, di leen wax ne leen nañu nañu jàng ci ñi nga xam ne jiitu nañ laqad kaana fi qasasihim ibratun li ulil albaab léeg-léeg mu nekk si leen saa salaam dara ba pare ne ko ñooñu kat seen mbir ni mu demee képp ku kuy kuy xalaat rek mën na cee jànge laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana ak yu dul yooyu di yuy saxal rek ne lislaam saxal na ne nit ñi nga xam ne dañoo jiitu woon nit ñu baax mën nañoo jàngee ci seenu dund ñi nga xam ne euh, seenu mbaax des na it mën nañoo jàngee ci seenu mujj kon lu am solo la tomb bi it am na solo ci waxtu yu ñu ko waxtaane muy jamono yoo xam ne àdduna sëpp rek dañoo nekk ci ay crise yu wuute crise yooyu yi ci gën a fës rek mooy crise yoo xam ne crise yu delluwaay crise yu royukaay kenn ku nekk xam si fan ngay dellu ngir mën a ngir mën a euh, sàmm li nga xam ne mooy tax nga bokk fi nga bokk maanaam li ñuy wax sa identité ku ne li tax nga sàmm ko loolu euh, kuréel yu bari ci àdduna bi du Sénégal dong kuréel yu bari ci àdduna bi rek at yi yëpp dañoo ne ci jafe-jafe yooyu kon indi tomb bu mel nii ñu waxtaane ci loolu dina am solo ci jullit ñi am solo ci taalibe yi ndax ku ne rek li tax mu mën a sàmm identité mooy mu xam mbir mi li mun ko ñàkk ngir bokk ci loolu bu ko xamee ci la koy mën a téye ba ba tax du jigéen génn maanaam jullit bi lii tax ba li nga xam ne bu ko doo dootu nekk jullit loolu faw mu xam ko ngir doog a mën a sàmm identité murit bi it faw mu xam yi koy tee nekk jullit ak yi koy tee nekk murit su leen boolee yooyu lay mën a sàmm ngir ak muritam mu mën ko sàmm kon di waxtaane dunduk sëriñ bi di jëlee indi loolu lu am solo la ci jamono ju ne waaye rawatina ci jamono jii ñu ñu nekk nag tomb la boo xam ne nag ni ko suñu Asan waxee dunduk sëriñ bi lépp ay bind la lépp ay ay ay jàngat la Euh, moo tax waxtaanee ko yomb na jafe na yomb na ndax euh, tomb boo loo jël ci dundam rek mën nga cee génne ay bind kon loolu dana yomb ci tànn bi jafe-jafe bi fi muy nekkee rek mooy ban ngay jël ak ban nga dul ba ngay xam ndax bind yi day mujj bari ci sa kanam ba dootoo xam looy jël ak looy ba ni ko suñu asam waxee sëñ bi sëñ bi ci boppam waxal na boppam ne moom ak dundam dund dund la goo xam ne bu bu ko suñ borom xéewali xéewali bari la ba ne sax dund gi suñ borom da koo boole ci xar baax yonent bi sallallahu mooy xus xayaatan laa tura li xayri mojisatan baana li usni xayri ak yu dul yooyu yi mu wax ci ci ci dundam gi ni ko suñu borom defee baana li kulli man lahu wilaaya kaw nii li rabbil alamina aaya ak bay bi suñu asan wax léegi ci ci jaawattu euh, lastu ashuku abadan fii kaw nii jaaral ba di ajaban lil kaw nii yooyu yëpp da ciy junj rek wane ne dundam gi moom suñu borom barkeelal na ko ko defal na ko ci xéewal yu bari yoo xam ne ku ne mën na ca jànge ku ci jàngee di nga ci di nga ci gisee màgg suñu borom bi bu ko defee ni ko suñu asan waxee waxtaan wi ci ñaari tomb rek lañ koy def bu njëkk bi mooy ginnaaw ay bind lañu ñuy jël ci dunduk sëriñ bi dina baax ñu tënk tënk bu gàtt ci ci dundam boobu noonu bu ñu waxee dund gi li ñu ci jublu suñu jugee ci loolu rek li ci des moom mooy ay bind yu ñu mën a jëlee ci dund googu lu ci xaj ci waxtu rek ñu ñu def ko ci moom ñi ngeen ko xamee Maolana Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu euh, di ku ñu miin koo xam ne mi ngi tudd Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu euh, des na ko woowee wala dina woowee boppam sax abdullahi wa xadim rasulihi muy garaat ci moom di aw tur ci moom di dàkkantal ci moom euh, bëri na ay tur yu ñu koy woowee ni ngeen ko xamee xaadimu rasul al abdul xadim cheikhul xadim sëñ tubaa euh, ak yu dul yooyu ci tur yoo xam ne danañ ko koy woowee suñ borom tànnal ko ay waay waajur yu baax yoo xam ne ci askan bu baax lañ bokk muy sëñ Maam Mor Anta Sali ak soxna Jaara Buso ñii ay nit ñu jub di ay borom xam-xam ay nit ñoo xam ne lu jiitu démb ak bëkk démb askan yi ñu bokk ci jub ak jubal rek la ñu leen xamoon kon ci askan wu tedd wu mel noonu la ko suñu borom tànnal mu feeñee ci mu feeñ jamono ci dëkk bi ñuy wax Mbàkke Bawol soriwul fii xam ngeen maamam bi ñuy wax maam maaram bi ñaareelu maamam moo ko sanc mu feeñ fa jamono ci euh, nisfu Sha'ban ci atum charaa 1270 du sori cent 1854 yooyu mu feeñ fa jamono moom sëriñ bi kon euh, ba ni mu génnee àdduna ci njaareem ci weeru muharram ci atum 1346 muy 1927 nga xam ne bu ñu ko natteekoon ci weeri ati wolof yi nga xam ne ci la daan nattal boppam mën nañ dund na lu mat juróom juróom-ñaar fukki at ak juróom euh, dund gu bàkkeel du fees della ak njariñ ak xéewal juróom-ñaar fukk ak juróom yooyu nag fanweer ak ñett yu mujj yëpp ci loxoy tubaab bi la ko nekk xam ngeen ci bu tayee ñu génne ko fii subaa ñu yóbbu ko fee di yëpp rek ci dundam ko nekk mu def fa juróom ñu indi ko yàggu fi ñu yóbbuwaat ko Mauritanie mu def ñeenti at ñu yóbbu ko Jolof mu def fa juróomi at ñu yóbbu ko Njaareen mu def fa fukki at ak juróom-benn ba ni mu wujjee boromam ñëw fii ci Touba. kon ci dund gu metti googu la dund euh, gu xat googu nga xam ne bu ci bu réalisé woon bu réalisé wutoon dara sax des na ko mën a comprendre maanaam des na mën a des na ko mën a nangul ndax euh, wax xawtoon a mën a ne muy jëf loo xam ne lu ñuy waxtaanee ëllëg lay doon ci diggante boobu mu nekk ci ci ci loxoy tubaab yi. waaye yàlla dimbale ko ba diggante boobu mu nekk seen loxo yëpp defu fi lenn loo xam ne lu lu diine bañ la wala loo xam ne euh, sax wala mbañum rus dana ko dana ko ci jam suñ bi diggante boobu mu nekk ci loxo tubaab yëpp suñu borom defal na ko sutura ba deful dara lu ko diine ji yeme euh, bi mu tollee mu doonoon borom xam-xam bu mag boo xam ne xam-xamam da ko da koo jaar fi ko ñëpp di jaar bi mu tollee ci jàng suñ buñ delloo ci li suñ mbàkk bu so wax euh, ni yaayam sëriñ bu moo ko dalal moo ko dalal ginnaaw bi mu jox ko tafsir Mbàkke Ndumbe koo xam ne maam la ci moom ma ko soxna Asuwa la mu jàng ci moom alxuraan bay bëgg a mokkal tafsir mu dem ci mu dellu kër waajuram bu góor suñu maam Mor Anta Sali fa laa galee mu daal di tàmbali yi eh, diine yi lislaam yi fiq ak ci yooyu ba xaw caa sori jàng na ci ñu baree bari ginnaaw bi ñu jox ko tafsir Mbàkke Ndumbe ñu ko eh, suñ Sàmba Ka koo xam ne moo moom waajuram bu góor ay doomi lay lañ mu wéyal di jàng ci moom nee na sax sëñ Maam Sali na ko Saalum ñëw Kajoor lu mat at moom mu des ci sëñ Sàmba Tukulóor ko di ko jàng wax nañ ne ay risaala ak yooyu ci moom la ko jàngee ba ni ñëwaatee Kajoor fekk si waajuram di wéy di jàng ci moom jàng na ci ñeneen ñu bari ci digdigal boobu it euh, ku mel ne Cheikh Mahamadou Fadil Ad-Daymaani yi mi nga xam ne am ci waa Mauritanie la bokkoon daan ñëw ci gox boobu wax nañ ne suñu jàng la ci moom rawatina lu jëm ci ay man ak ay balaaxa yu demee ci noonu xaadima jaxate kala sëñ bi jëriñu tam jëriñu si moom ci wàllu xam-xam waaye nag nee na moom jàngalu ko ab téere nee na nee na xaadi yóbbu mu ab téere mu di ma ko jàngal waaye dama daan bind ay bayit di ko ko jox mu di ma ko toppaatal su toppee jubbante jubbante jox ma ba ni mujjee ne ma nag léegi say bayit mënatuma cee gis ay njuumte léegi daal li ñu seq mooy ngay bind di ma jox may mokkal rek loolu la ñu seq kon foofu la jaar ci xam-xam ba ñi amoon xam-xam te jamono teg moom ñëpp seere ne Sëñ Tuubaa borom xam-xam bu mag la te bu ko kenn seere wutoo nit mbindam ku ko yër xam ne kii moom ki bind lii moom borom xam-xam la bu gëstu la bu xóotal gëstu la borom xam-xam la bu ràññee tamit loolu moom suñu borom defal nag ko mu doonoon nit koo xam ne it mi ngi feeñ jamono ci askan woo xam ne askanu tasawuf lañ ci tarixa xaadiree la ñu bokk mu nekk ci seen biir bi mu demee ba toll ci jël wérdu mu jël al wérdul xaadiree jëlee ko ci waajuram yeesalaat na ko ci ñeneen nit dox ci doxin woo xam ne sax askan wi mu bokk mën nañ ne moom rek lañ gis mu mu jox ko yitte jooju dem fu ne di ko fa yeesu fu mu dégg ñu ne am nañ ko fa mu dem yeesu fa wirdu wi dem ba gànnaar yeesal ko fa waaye silsila xaadiriya bi mooy moom fi mu jëlee wirdu yi jaar fi jaar ba àgg Cheikh Abdul Xaadir Jilaani loolu lépp di wane solo ak yitte ji nga xam ne joxoon na ko joxoon na ko euh, dox ci yoonu yàlla muy wéy ci noonu ba wax nañu sax yenn jamono yoroon na wirdu xaadir yi ak tijaan yi ak wirdu chaadili yi lépp di yitte ju rëy xam ne joxoon na ko joxoon na ko loolu doonoon nit ku maandu ku bëri yërmande ku woyof koo xam ne ku dëdd àdduna xam ngeen jamono ji mu nekk njaareem daanaka Sénégal mën nañu sëñ Tuubaa mooy ki fi ëppoon doole boobu ndax ñu ëpp doole ci réew mi ñëpp moo leen yilif ku yilif maam Cheikh Anta yilif maam Thierno yilif sëñ Mandumbe Cheikh Ibra Fall sëñ Issa Dieng ak ñi ma tuddut ñooñu ñëpp ku leen boole yilif réew mi nga nekk yaa fi ëpp doole te li muy yilif yilif ñooñu it teewut ci ay néegi ñax la dëkk di dund dund dund gam amoon démb ak ki démb rek ngir dëddu àdduna boo xam ne dëdd na ko bu ngeen xoolee yére mbubbam yi muy sol rek ñi ci mas a gis mbubbam wala ñu gis ci foto bi da ngeen di gis ne yére yi sëñ Tuubaa yooyu yére yii la rek ay malika nag ay perkaal ak yii nii rek yii dong la ku ko mas a gis sax yi ci ëpp loxo lañ ko ñëwee wëñ la nga xam ne mbubb la daal day fexe ba sol mbubb noonu rek mbubbum sëñ Tuubaa kon fi fekkoon fii ci ñun ñu la ko joxee te waxuñ na la mbubbam doo ko jël boo boo xamee ne moom da nga ko jël muy sa taxe àdduna ak àlaxira waaye boo ko xamul doo ko jël ndax doo ko soxla foofu la àggoon ci toroxlu foofu la àggoon ci dëddu àdduna yore lépp te nanguutatee dara yilif lépp te dara ñor ko ci euh, kon euh, nit ku maandu la woon nit ku dëddu àdduna nit koo xam ne ku daa jëmmal dëggi dëggi lislaam la woon euh, noonu la wéyee ci ci yoon wi ba ni ko suñu borom baaxee nag mu am tariixa boppam di di loo xam ne lu mag a mag lu rëy rëy loo xam ne man nga ne mbooleem lu mu doon sàkku rek ci la ko amee di loo xam ne ci moom lañ ko njëkk a déggee ci gox bi yëpp nit ku ñuul ku ku ku jëlee ci yonent bi sallam direct am wirdu boppam am tarixa boppam loolu moom fii fépp suñu wàllu ci njëkk a déggee ci moom lañ ko mujjee déggee yi tamit nag loolu kon di lu rëy loo xam ne suñu borom baaxee ko ko euh, koy woyee rek ne Cheikhu Ahmadu ni'matun awlaha hasil xalaa'iqa kullaha mii daal euh, xéewal la rek loo xam ne suñu borom moo ko baaxee mbindeef yëpp moom noonu la meloon ci ci nit ñi bi ñu fi ñëwee ba ni fi jugee lu jëriñ nit ñi rek ci la nekkoon euh, daal leen xettali loolu nag daa ko bind daa ko wax daa ko daa ko jëfe kon foofu la jaar ci ci dund gu barkeel boobu dund googu nag ci lañ bëgg a jël ay ay bind ngir ma njëkkanteeg euh, waxtu wi rek su ko defee ni ma ko waxee woon bu ñu duggee nag ci tomb bi nga xam ne mooy dëgg-dëgg waxtaan mooy ay bind yu ñu mën a jëlee ci ci dunduk sëriñ bi ay bind yu ñu mën a jëlee ci dunduk sëriñ bi mën nañ koo xaaj ñaari xaaj xaaj bu njëkk bi ay bind yoo xam ne dañ koy jëlee ci ni ni suñ borom doxeek moom suñ borom min jëflante euh, Cheikhul Khadim loolu ay bind la ay bind gi ci yoo xam ne jullit ñi mën nañ sa jariñ beneen xaaj bi nag di ay bind yoo xam ne moom ci aw melokaanam ak aw doxinam moom sëriñ bi ci lañ koy jëlee bu dee bu njëkk bi muy bind yuñ mën a jëlee ci ni suñ borom jëflante ak moom bi ci jiitu mooy aaya bi suñ borom bi wax ne inna allaha ala kulli shay'in ak faalun li ma yurid ne suñ borom dara tëwu ko te lu ko neex def loolu ku jàngat dundub Cheikhul Khadim radiyallahu anhu ñaari mbir yooyu day fës lool ci fi ko suñ jaar jaarale ba fi mu ko mujjal ndax ku xool fi mu ko jaarale ñu ngi ko boloon ci ay noon ni ñu amee woon kattan te lépp lu ñu xam ci lu ko mën a faat wala lu ko mën a lor ñu di ko def subaa ngoon bu dégg ba cëg te suñ borom aar ko sàmm ko ba mbiram mujj fi mu mujj da ngay xam ne li suñ borom waxoon ne inna allah ala kulli shay'in qadir ak wax ne fa'alu lima yurid loolu mooy li dëggu ci ni suñ tubaab ni mu jëflante ak mooy noonu yëpp ànd nañ bëgg koo lor waaye suñu borom ci kattanam ci kef ci coobare bi nga xam ne lu ko neex mu def ko si ci la ko sàmmee ba mu mu mu mujj fii nga xam ne euh, day day wax sax moom ne yoonu géej gi yëpp li ko waral mooy suñ borom daa am ñett yu mu ko bëggaloon rek bëggoon na koo jox daraja ju màgg ci moom bëggoon na koo def muy liggéeykat yoonu chance la bëggoon na ko def mu doon kii xecc la ñoñam ñett yooyu la ko bëggaloon te su demutoon du ko mën am moo tax mu dem muy mu nekk abdullahi xadimu rasulihi nekk xaw mii muy sababu xaybati an allaha araada an anaala minhu jaaha wa an akuna shafian xaw xawmi waa an akuna xaadiman fi dawmi kon foofu bind a ngi fi ci bépp jullit mu xam ne suñ borom li mu waxoon ne inna allaha ala kulli seen qadir ba léegi jugu ci mooy suñ borom lu ko neex mu def ko te tëlewu dara loolu bind la ñaareel bi ci ni suñ borom jëflante ak moom it des na ci jàngee ne li ñuy li alxuraan di wax ne wala aqibatu lil mooy dëgg rek mooy mucc dëgg rek mooy mucc ndax euh, sëñ Tuubaa jëflanteem ak tubaab yi jéggi woon na kenn ku tudd Cheikh Ahmadou Bamba rek tubaab yi di ko génne dimension bi weesu woon na lool day mel ne diggante xëccoo la woon nag diggante dëgg maam ak neen tooñ ak maandu lëndëm ak leer diggante yooyu ñoo doon ñoo doon xëccoo ngëm ak kéefar ngëm ak wetti nga xam ne mujjoon na jéggi jëmmi Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu ci waaye fi ñu ko jaarale fépp mujj nañ mboolem dañu ko doon bañal tey jii la gën a yaatu tey la gën a yëkkatiku lislaam tey dafa gën a sampe yoonu mu doon ñu doon ko ko tere tey la gën a yaatu ba bokk ci yoon yi gën a rëy ci réew mi ak ci Afrique gépp mbirum sëñ bi tey la gën a yëkkatiku tey lañ ko gën a fonk tey lañ ko gën a bëgg te loolu donc lañ ko doon bañal xam ne kon loolu day war rek ne dëgg lu mu yàgg-yàgg rek mooy mujj wala aqibatu lil muttaqin li suñ borom wax ne wa inna jundana lahumul ghalibun lu mu yàgg-yàgg rek Euh, ñi ne ci dëgg ñooy mujjee ñooy mujj ndam la moo tax biñ koy indi moom sëñ bi jaareem sax mu mu muy wax ñaari bay yooyu ne kat ñu ngi may indi fii yaakaar na dañ may yàqal fekk xamuñ ne suñ borom daf ma ci defaral ne ñëw gi ñu nag suñ xamoon li ma ci jëlee danañ ma ko soxale ba ma fi indi daan ne ndax ñoom ñaar yi lañ ciy jëlee buñ fi ñëwee seen biir da ciy jeexe dañ ci loro man nag ñaar yi laa ci jëlee moom mooy sama mbir da ciy sax ba faaw te suñ borom daf ma ciy tarale muy raamu masiri ila jubal la daal achasin law aayanu sirra ma fi sayri ma raamu fa sayru mawtun liman xad naazan wa azan wa innahu liya ibqaaun wa ikraamu ne moom ibqaa ak ikraam la ci jële suñ borom da ciy saxal mbiram muy wéy ba faaw da ko ciy teralit te loolu bi mu ñëwee njaareem ni mbiram yëkkatikuwaatee loolu ñëpp ñëpp teg nañ ci seen bët loolu di wane ne kon li suñ borom waxoon ne wala aqibatu lil muttaqin loolu lu fës ci dunduk sëriñ yàgg-yàgg rek dëgg mooy mujj euh, des na ci jàngee li suñu borom wax ni inna allaha laa yudii'u ajral muhsinin mooy ku jëf yàlla fay la ku jëf rek suñu borom dina la fay ndax siñ bi lim daj lépp ci ay coono muñ ko yemut ci muñ ko waaye sant ci suñu borom gërëm ko ci ci lim ko teg xam ne moo ko teg te xam ne daa am lu ko namal moo tax mu jox ko ko loolu euh, moo tax mu mujj mu sax rek ci boromam ba suñu borom mi ñëwee indi fay gi mu ko fay mooy li ñu wax ne man kaana lillaahi kaana allaahu lahu maanaam képp ku nekkal yàlla rek faw yàlla nekkal la wax nañ ne sax Cheikh Rafal daan na ko daan na ko firi ne ne man kaana li kumu rek kaana kooku la ko waaw ku ku ko nekkal rek kooku dana daan ne rawatina bu yàlla suñ borom mi nga xam ne nag moom moo gën a moo gën a baax moo gën a maandu loolu it fes na loolu ci ni suñ borom jëflantee ak moom euh, noonam yii nga xam ne ñoom la dajaloo nit ñu doon ko moo xam ay sénégalais lañ moo xam ay africain moo xam ay tubaab wala naar ñi ku ci doon dëngee fiñ mujj seeni mujj feeñee nag li suñu borom di wax ne fanzur kayfa kaana aqibatu zalimin mooy kuy tooñ faaw dina am kuy tooñ bu mucc te kuy tooñ faw dina am te sëñ bi bu ñu toppee mbooleem ñun jëflante loon donte genn bëccëg lañ ko mas a tooñ génn ñu kaw suuf jógewuñ ci kaw suuf lu dul suñu borom toroxal na fii ci kaw suuf laata ñu fi doog a jóge ñëpp ñëpp ñëpp suñ bay gee si li dajale na ci ab téere boo xam ne ci tubaab la ko bind am na yeneen mbokk ci dajale leneen tuddee ko fansu kayfa kaana aqibatu zalimin loolu lépp di wane ne sëñ Tuubaa mboolem ku ku ko mas a dënge suñu borom mën na la ko fii ci kaw suuf laata nga fi jóg loolu nag am na ay bind yu ci mën a jàngee ñun mën nañ cee jàngee ne ndax boo xoolee sénégalais yi nga xam ne ñu doon jaxase sëñ bi ak tubaab bi ñi ci ëpp ci ñoom mbir mi mu ngi déparé woon ci fiiraange rek ak coxor ak ñaan teewuñu seen xol yéemu ñoom mun seen bopp ba mu yóbbee leen ñu jóg def ay at jóg dem ci tubaab bi jaxase leen ak sëriñ bi Euh, lool xam nañ ci ay nit yu bari yoo xam ne dañoo tudd ay tur xam ne dëkk ñoo xam ne mbir mi bi ñuy départ gisoon nañ suñu benn mbooloo li ñu xaw koo fiire rek dem nañ mujj nag ba mënatuñoo te seen bopp ñuy ruuxale diggante ak tubaab bi kon euh, loolu bind gi ci ne ab jullit war naa wattandi ko képp kàttanam lépp lu jën ci coxor wala kiñaan wala fiiraange ndax da koy yóbbee ay musiba bu ko muy tuut wala ayaasu billah tubaab yi it bi jaxase ko di wax leen loolu buñ teyee yoon duñ dal ci ko sëñ bi ndax kon dinañ xam ne mboolem liñ leen doon wax dana jaxase moom dëgg waaye ñàkk a tey gi it moo leen yóbbee ñoom it ñu ñu daal di doxee niñ doxee kon loolu biir na gis ci ne li alxuraan waxoon ne yaa ayyuhal lazina aamanu in jaakum faasiqun bi naba'in fatabayyanu su su su benn waaye ñëwee rek jox leen xibaar bala ngeen a def benn acte bala ngeen a wax jël benn position na ngeen na ngeen gëstu ba xam ne lii kat dëgg la te nii la demee te danay faral di am nag bëri na ay girawaale yu am yu léegi ci àdduna si yëpp réew moo mën a dem yoo xam ne ci ay demale ak ay fekkale rek ci lay ci lay ci lay jóge bu ñu ko toppee ba ci biir ay rumeur rek lay doon comme ni koy waxee noonu kon ñooñu it fi ñu mujjee tooñ kay di war nañ cee jàngate ci xam ne kuy tooñ moom faaw dina am bés bi may mujjee ci ni sëñ bi jëflanteeg ni suñu borom jëflanteeg moom rek mooy li suñu borom di wax ne say jaalullah baada usrin yusra mooy daal Euh, képp ku bëgg teraanga xaw di nga nangoo sonn suñu borom noonu moom mooy ni muy jëflante ak jaamam ñëpp ngay jullit ngay leneen ku sonn gis résultat bi fii ci àdduna àllaaxira moom boo def jullit boo jaamoo boo àggee fekk ko fa mooy li suñ bi di wax rek ne wax la annal majda laa yunaalu illaa bi xadril kat bi fii maa xaalu doo ci am lu dul lu toll ne la nga ci daj ci ak coono rek lu toll noonu da nga ci am euh, moo tax sax moom junj loolu ci mbiram wala ne nabbahtukum maana ala kaddil bada lii xabla an ara lii xabla an ara ridan mu abada maa ngi leen di xamal ne kat daj naa coono yu méttee métti laata muy am ngërëm sax li nga xam ne am naa ko waxaan ne feneen sax ne nabbahtukum maana ala kaddil bada lii xabla an akuna bahran musbida maa ngi leen di xamal ne kat euh, daj naa coono yu méttee métti te tar laata may mujj mel ni ma mel doon géej gu duusu rek ci ay xéwal loolu lépp di wane ne jullit bi da ko war a jaral maanaam dafa war a xam ne teraangay àdduna ak teraangay alaxa teraangay àdduna liggéey koy may teraangay alaxa jaamu yàlla ma koy may maanaam ku ku ku ku bëgg a tedd faaw nga nangoo sonn kon loolu ay bind la yoo xam ne mën nañ koo jëlee mu juróom yoo xam ne mën nañ koo jëlee ci ni nga xam ne suñ borom jëflante na ko ak Cheikh Khalil radiyallahu anhu beneen ñaareelu xaaj bi ay bind la yoo xam ne nag moom day jógee rek ci doxin mi nga xam ne moom sëriñ bi moom la dox ni ni mu doxe muy ay jikkoom muy ay melo muy ni mu doon doxe yooyu moom yii may bëgg a wax moom mën a roy la du ay xarbaax waaye yu yu yuñ mën a roy la moom yuñ roy la bokkut ak jël jëlub der julli ci géej géej yooyu bokkut ak yooyu yii moom yuñ mën a roy la ci képp ku ko bëgg bu ko defee man nañ cee am ñeent yu bokkut yu jëm ci wàllu diine xam-xam yu jëm ci wàllu jikko yu jëm ci wàllu kilifteef ak ñi ñuy lif ak nag yu jëm ci wàllu rek euh, suñu biir jëflante bi bu dee xaaj bu njëkk bi muy li jëm ci wàllu diine ak xam-xam bind bu jiitu buñ ci mën a jàngate mooy sol euh, xadim ku xool dundam gépp gis ni kii ak jullit la bu fonk jaamu yàlla fonk jaamu yàlla mooy bind bu njëkk bu ñu war a jël ci ak dundam fonk jaamu yàlla jël boo ne jaamu yàlla jëlal naa farata yi waaye sunna yeeg ya ca aju fonk koor yi fonk koole gàtt nañ fonk naafile yi gis ngeen sëñ Basiru sax wax na ci menoon baaxil xadim ne sëñ bi daan na ñaar juróom-benn rakka wala ñaari rakka ginnaaw timis yoo xam ne baqara ak Aali ci loolu bokkut ak yeneen nawaafil yeeg tahajjud yi muy def ak di wane ne kon bi war naa xam li ko fi indi te ba ko fi te mooy wa maa xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kër kër gi lu mu bari bari yëngu li lu mu bari bari yitte ji ñu fi indi woon te baju fi mooy sàkk ngërëmul yàlla te mënee su koo sàkk ko ci lu dul jaamu yàlla ñaareel bi mooy ab bind bu ñu mën a jël ci loolu ñuy sàkk xam-xam lay gën a yitteel mooy nangoo euh, tegoo ay coono ngir ngir sàkk xam-xam maanaam Sëñ Tuubaa bi muy sàkk xam-xam da cee sonn ay coono yu méttee métti am na ñaari xista yu yu yéeme yu ci nett li ne ñaari téere yi mu njëkk jëndal boppam nga xam ne moo ko jënd moomal ko boppam ci xaalisam nee na téere bi mu njëkk jënd moom ko mooy téere imam Ghazali bi ñuy wax Bidaayatul Hidaaya na téere bi boobu ma nga ci Saalum toll ci njàng am njàngam sax soreegul yenn sori yi benn naaru gànnaar di ko jaay ne ko benn dërëm la ko jaayee nee na waaye yoruma njëg nag omo amu yoruma njëg gi ma ne ko yoruma ko de waaye jaral ma ko léegi da ngay ñëw ñu ànd fu mu lijjanti ko rek ma jox la dërëm lijjantéere bi nee na mu ne ma waaw nañ dem sëñ bi nee na nag man sama aada da cee bokkoon du ma laaj kenn xaalis bu ma ñëwee fenn daal dinaa ñëw rek bu dem jotee ma dem buñ ma joxee baax na suñ ma joxutoon du ma du ma laaj kenn ndax xam ngeen laaj rek dafa baaxut laaj moom yàlla rek moo moo ci mata laaj pour yàlla boo ko dee laaj la nga mujj sopp yàlla bu sant sant yu gàtt yooyu nag loolu sëñ bi nee na bi ñu ñëwee ñu dem ci euh, kenn koo xam ne ak taalibe la woon ci suñu waroon sëriñ ku yore bitig di jaay maanaam doon na jàngee ci moom daal nee na bi ñu ñëwee maanaam naar bi ñu nuyu ko nee na waa bi ma nuyoo rek dafa tàggoog sa ko mer daal may xëcc yóbbu ma ci ginnaaw ne ma lii nga sol nee na yére yi ma sol xaw naa màgg daal mu ne ma yow doomi kilifa sa bàyyi sa waajur ni nga fi mel ni mu toll nangam ngay solli waroo solli nee daal di génn mbubb yóbbu ma ci ginnaaw ne ma sol ko ko summi mi nee na ma jël rek daal di sol summi mi ma soloon moom lem ko teg ko ci yoonam fa ma jaar bi may ñibbi daal demaat ñu toog ba ñibbi jot mag naar bi ñu dem bi ñu demee ba ci yoonam mu jëlaat mbubb moom amoon mbubb mu xottik moom solon daane naar bi ndax bëgg nga mbubb mu bees mi ma jël téere bi naar bi ne ko bu ma ci jotee nga yaa moom tee jox ko sol mbubb mu xottik moom solon téere boobu nee na mooy bi mu njëkk a jënd ci kaw suuf nga xam ne ci mbubb la ko jëndee mbubb muy bidaayatul bidaaya téere boobu nee bi mu demee ba ci kanam ba am njàngam sori moom la mujj taalif tuddee ko tuddee ko mu la yéen sudur mu la yéen sudur téere boobu noonu ba mu njëkkoon na jënd xam ngeen mu la yéen sudur moom la yeesaa tuddee ko mu la yéen sudur bi mu nekk gànnaar nee ñaareelu téere bi moom it mooy téere fatal aqfal bu Cheikh Abdoul la Al Afan nee na loolu kajoor lay doon xam naa nee na boobu benn naar a ko di ñu ko jaay ci ñetti dërëm mu wax la ma waxoon ko njëkk rek ne ko nañ dem ma lijjanti ko nee na mi ngi moom ak maam Thierno ak sëñ Massamba Diop Samb nee na ñu wër nangami dëkk gox yi leen wër yëpp wax dëgg amuñu ñetti dërëm yi ñu ñibbisiwaat ak loxoy neen ba naar bi xaw na koo tooñ sax nag waaye bi ñu ñibbisee fat suñ borom yombal mbir moom jot ci téere bi nga xam ne ñetti dërëm yooyu rek laata ma ko jot nee wër na nangami dëkk amu ci sëñ Modou Diop Massamba nettali na ko ne sëñ bi fekk na leen jaaneen bis ñu toog ci benn jotaay moom sëñ Modou Massamba ak sëñ Modou Awa Balla ak sëñ Modou Moustapha nee na sëñ bi tagal leen dab toog na ci seen wet ba yàgg mu mel ne ko xaw ak yeeg ñoom ne leen di am na bis bàyyi kii joxoñ sëñ Modou Moustapha ne leen am bàyyi kii joxoñ sëñ Modou Awa Balla ak bàyyi kee muy sëñ Modou Massamba nee na ñoom ñett ñu àndi wër bëgg ñetti dërëm ñu wër nangami dëkk te ñu ko am ne leen loola nu mu demee tey jii te sëñ Modou Diop jamono bi mu koy wax ñun dañoo seex ba soxlawuñu sax suñu waajur li ñu yor ñoom seex nañ ci kanamu sëñ bi nee na mun leen gis ngeen nii mbirum suñu borom ni mel nee na ñu seen ñetti bàyyi àndoon nañ bis bëgg ñetti dërëm mu tëleenti ci nga xam ne kon coono yooyu yëpp da ko doon toggoo ngir ngir ngir xam-xam kon loolu it bind ngi ci ci ñu toll ci sàkk xam-xam ci ñu xam ne dañoo war a nangoo sonn ngir xam-xam mooy la moo xam maam Cerno ci kunkaati man rek ba mu jeex kon kuy toll ci sàkk xam-xam rawatina jamono nga xam ne luxe bi dafa bari téléphone yu cher yi yu cher yooyu yëpp luy luy fëkk luy fëkk jàngkat bi la jàngkat bi moom dafa war a xam ne rek daa am lu ko tax a jóg mooy sàkko xam bu dee wërsëgam mu bàyyi ko ci loxol naa mu taka fi risqa la lu lu lu bi ci toppit mooy bind mën a jëlee ci ñi nga xam ne ñoom jàng nañ ba wala boog jàng nañ ba mooy nag dundal xam-xam suñ bi sàkkoo xam-xam ba ba noppi yemut ci am xam-xam noonu bi yàngale waaye dafa dundal xam-xam ni mu ko dundalee mooy dafa taalif waaw nit bu sàkkoo xam-xam ma noppi bokk na ci yi ko aw yi ko aw askanam di gën a xaar mooy mu dundal xam-xam fi mu ne mu ubbi ay daara di jàngale waaye mu taalif te taalifam yu bari yi ngeen xam ne la mu diine rek dajale nañ ci lu mat ñaar fukki ñaar fukk ak juróom-ñaar ci ay mbind ci ay téere xam-xam bokkut ak min wasaaya bi nga xam ne root raay nañ ko bokkut ak min xekam bi raw la daan génne woon bokkut ak min fatawa bi nga xam ne Sëriñ Abdou Khadim Bousso bi moo ko génne yooyu yëpp ay nit ñi xam-xam la yoo xam ne Sëriñ Tuubaa ba loolu moom mm, bind ngi ci ci ne kon ñiy sàkk xam-xam sàkkoo xam-xam ba sori war nañoo góorgóorlu ci ci dundal xam-xam mën nañoo jëlee bind it ci dunduk sëriñ bi ci ak ubbiku boo xam ne day ànd ak yeewu ubbiku ci ñëpp waaye boo xam ne nag yeewu da ciy ànd yeewu mooy man ngaa jël ci ñëpp waaye da ngay seet bu mu ñëwee nag euh, ku xool ci misaal lu mel ne Masaalikul Jinaan xam ngeen sëñ bi mu koy taalif dellu na ci borom xam-xam yu bëri imam Ghazali sëñ bi da ko fonk di dellu ci moom bu bari ba ne sax borom xam-xam bu ne su ma jëlee ci moom dinaa ne xaala diw su ma nee xaala dana wax turam daal man la si imam Ghazali su ma nee xaala rek moom laa bëgg a wax ndax li ma jël ci li mu jël ci moom dana bëri waaye teewut li mu koy fonk fonk di jël ci moom dafa am na wet gu mu ko soxla mooy li li li ñoom la jël ci imam Ghazali maanaam imam Ghazali li xam bi bari bari li bind ci falsafa maqasidul falasifa taxafatul falasifa ak beneen téere bu ndaw bi al munqidh min ad-dalal yooyu yëpp da ko faa bax dem jël lim soxla ci ihya ulumuddin ko xëy na léeg-léeg mu laaj si xut ya indi ko dugal ko ci masaali ko jinaan ndax ñi muy taalifal ñoom lii lañ soxla lu jëm ca ca ca ca falsafa xam-xam fu muy jóge ci xel yi lay jóge wala ci cër yi wala ci fan la nekk yooyu yitteelu ko moo tax da ko faa bax doonu ne dafa baaxoon waaye ñii muy wutal soxla wuñ ko moo tax loolu it jàngkat yi baax na ci lool ñuy bàyyi xel seenu askan mooy lu ñuy jëggaan di ko indi na doon lu dëppoog li ñu fi soxla fii ci barab bi ndax lool loolu ay mbëkkante lay indi ndax ku jëggaane ay xel rek da ngay indaale ay jikko yu bees ay jikko yu bokk ak yi ñu fi xamoon loolu it bind la bu ñu mën a jëlee ci ci ci dunduk sëriñ bi waaye it bañ a sànq sa dund bañ a sànq sa dund fonk sa waxtu dund gépp nga fexe ba lépp nga feesal ko dell ci njëriñ xam ngeen ne sëñ bi bi mu feeñee ba ni mu génnee àdduna dund bi lépp lu barke la amul wenn waxtu ci ak dundam moo xam dafa neen du suba du ngoon du bëccëg du guddi waxtu yëpp da koo dundal ba mu fees dell ak ay njëriñ nga xam ne loolu sëñ Basiru di wax naan fa layluhu nahaar wa nahaaruhu nuur maa lil axyaai fi zamanihi nasiib innamaa huwa li rabbihi tabaaraka wa ne sëñ bi guddeem yëpp ay bëccëg la leer la ay caaxaan amul amul place ci dundu Seexul Xadiim radiyallaahu anhu lépp lépp suñu borom la ko jagleel loolu moo ko may jëf yu mag yi mu jëf ak ni mu ko teree def xam ngeen ne suñ ko tàmbali naa taalif te amul ñaar fukki xam nañ ay bind Sëriñ Tuubaa yoo xam ne bi mu koy bind amagul ñaar fukki loolu yitte la ju kawe yoonu murid bii li muy rëy rëy ñu koy wane ci fanweeri at la toll fanweeri at fanweeri at ci la toll fanweeri at mooy ñi feeñoon jamono 93 bi muy woote yoonu murid la muy rëy ñaar la ko bind daaru salaam ci ay fanweeri at ak ñeent la ko taalif tubaa gi fanweeri at ak juróom-benn ci la ko taalif bi ñu koy jëlee fii di ko yóbbu ci géej gi ci ñeent fukki at ak ñett ci la topp ci la toll doonul góor gu màggat lañ ko toppee moom mu def yëpp seexal ay ay nit samp ay jëwrin xetti la ay ñu dul jeex samp ay daara yooyu defoon na ko doog ko dem ci géej gi nga xam ne loolu lépp ci ci ñeent fukki at yooyu la ko def te fi mu ne nii jamono ji ñu loolu ku am ñeent fukki at sax daanaka def dara wala koo laaj lu def maanaam ki gën a jàmbaar da wax tabax naa kër wala am naa oto loolu du loolu dara bi ndax ku faatu tey bu suwaa ñu miraas ko loolu bokk réalisation kenn ku nekk ci ñun rek bu ko neexee mu laaj boppam moom bi mu juddoo léegi lan la jëfal lislaam kenn ku nekk ci ñun fii ñëpp mën naa xalaat bi mu feeñee jamono ak tey lan la fi jëfal lislaam ku sa xel demut ci dara lu leer rek xamal ne jëfa ko dara moom ndax kër moom taxul ñuy wax oto taxul ñuy wax yooyu moom wërsëg la ñëpp ci bokk yam ndax ñi du julli sax am nañ sëñ Tuubaa bi bi bi fi sëñ Mor Anta Sali jóge moom bu génnoon na ci ngoon googu maanaam bu woote wutoon yoonu murit tam moom liggéeyal na lislaam moom sëñ Tuubaa moom liggéeyal na lislaam laata muy woote yoonu murit mooy ak dundam dara neenu ci kon loolu bind ngi ci ci ne nit ki war naa fexe ba bañ a sànq ak dundam bañ a sànq ak dundam te fonk waxtoom bu baax a baax ñaareel bi ay bind yoo xam ne mën koo jëlee ci ci wàllu jikko ci wàllu jikko ak melokaan bu njëkk bi mooy njariñul njariñul gëm yàlla ak doyloo ko gëm yàlla ak doyloo ko njariñ li mu am ci ab jullit ndax sëñ bi dundam gi yépp day wane jaam bu wakkeelu ci boromam ngëm yàlla gu mat sëkk moom la jóge woon ngànnaayoo wakkeelu suñ borom doyloo ko xoolul benn mbindeef du jàmbat kenn rafet njort ci boromam sàmmoonte teg gi ñuy war diggante ma borom te lépp lu mu dogal mu neex ko bi mu demee ba am loolu ci la am pas-pas am yëg-yëg fas ci xolam gëm ci lu wér ci ne njariñ ak lor ci suñu borom dong lay jóge juguwul ci ñu weex ñi juguwul ci ñu ñuul ñi juguwul ci ñu baax ñi juguwul ci ñu baaxut juguwul ci soppe yi juguwul ci ñi nga xam ne ay noonu lañ moo tax mu doon wax man zanna gayra llahi yugni aw yadur fa zaaka jaa ku am na kenn ku mën a jëriñ wala mu mën a lor ku dul yàlla suñu borom subhanahu wa taala àdduna ak àlaaxira ci coono lay dëkk moo tax bi mu amee pas-pas boobu nag moom ci borom diggante mag borom doyloo ko ci wér moo tax mu mujj amul menn mbindeef moo xam ne mu ne amul menn mbindeef muy ragal lastu axaafu durra xalqin baadama fawwadtu amriya ila rabbi sama amul menn mindeef moo xam ne daal maa ngi ragal ci moom lor ndax jël naa sama lépp teg ko ci loxol suñu borom yuy ku wakkilu gum wakkilu ci borom wax na ne keroog bi mu nekkee ndar ñu koy bëgg yóbbu ci géej bi te demagut ci fan ak nangam yooyu mu fi def nee na toll na ay jamono mag yi njàmbur yi kilifa yi am ñu fa ñëw ci moom ne kat dañoo bëggoon nga may ñu ñu wax tubaab yi tinu la ci ñoom ñaan leen daal nag wax dëgg ñun xam nañ la xam nañ li nga mel ñaan leen ngir ñu balax bañ laa bañ laa génn dëkk bi wax a wax seen wax yu rafet ba ma sant leen ne leen nag xam bayni wa bayna rabbi wa huwa arfau bi minkum wa aalamu bi ma huwa al aslahu li nee ma ne leen sant naa leen gërëm naa leen waaye nag bàyyi leen maag suñ borom rek suñ borom moo ma gën a yërëm ci yéen te moo gën a xam li gën ci man kon génn leen ci roy ko Seydina Ibrahim te la ko malaayka yi waxoon mu ne leen suñ borom xam ñoo xam ne maa ngi fi rek boobu sëñ bi lu bu ne woon waaw rek ndax ñun dañu ko lijjanti mu ne leen génn leen ci rek suñ borom loolu wakiilu gu mat bu mat sëkk bu mu am diggante ma boromam rek moo ko may te dañu ci loolu gis ngeen ba keroog bi muy génn daarul mën naan te kenn ci seex si xaar ci kanamam ne ko may ñu rek jox ñu ndigal dimbalu ñu tubaab yi moom ba lañ dafee génne ñii lay jël si dañ leen faat ñoom ñëpp wala ñun ñu faat ñu bañ jeex ñun waaye yow booy génn dooñu fi baax nee na bi ne leen sëñ basir nee na sëñ bi ne leen inni lam arju sadiqan walam axaf aduwan wa zimaami bi yadillah ne leen lii ma ne soxlawu ma ci ab xarit ragalu ma ci am noonu te sama mbir ci loxo suñu borom képp la nekk te ba Bachir nee na boobu murid niñ toll néewuñu doole buñ so buñ songoo woon ak gaa yi dan metti waaye murid néewuñu doole boobu waaye siñ bi ne leen bu ci kenn dugg moom naka jekk liggéey bi bàyyi leen man suñ borom rek lay wax mës na nangu kenn dugg ci moo tax Cheikh Sidé sax bi mu koy tàgg gis ngeen bi mu koy tàgg ci xasida googu ab Cheikh Ahmadu ni'matun awlaha da koy ne sëñ bi daal xéewal la ba suñu borom baaxee mbindeef yëpp wax nañ ne xasida googu indi woon am na ku ko doon jàng bi di jàng bay di bi di déglu muy jàng bi tari tari ba mu agsee ci bay du yim naan yarda isa jalasat umuru musalliman man bi anna ilahahu ajraha nekkat moom lépp lu lu xew da koy gërëm da da ciy bëgg ndax day xam ne suñ borom a ko dogal wax nañu suñ bi bi ñu jàngee baydu woowu dafa wax ne alaana madaxanaa daane waa mi ngi mi ngi may doog tàgg nag nga xam ne li mu wax ci ne xéwalu suñ borom laa ak yooyu yëpp waxut dara waaye bi mu ne ku nangu la suñ borom dogal la rek yëg na ne tàgg na ko léegi mooy ab jullit day day day day nangu dogal suñ borom tey day wakkilu ci moom kon loolu bind la bu bu buñ mën a jëlee ci ak dundam ci ne kat euh, gëm yàlla ak wakkilu ci moom lu am njariñ la ci dunduk jullit bi bokk na ci it yiñ ci mën a jàngee ci dundam mooy uluwul himma mooy yitte ju kawe njariñ li nga xam ne am na ko ci ab jullit yitte ju kawe yitte ju kawe mooy lépp looy bëgg ci lu baax nga bëgg la ci féete kaw la ca gën a kawe rek xam ngeen ni sëñ bi léppam loolu la bi mu ñëwee dafa jël ba tam teg ko ci ne li mu bëgg a nekk mooy abdullahi wa xadimu rasulihi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwee mënoon naa jaar rek yoon wi baaxoo jaar nekkub sëriñ yii di fi yii di fi ay am ñu muy jàngal waaye def ko daa xool lu gën a kawee loolu mu ne li mu bëgg a doon mooy abdullahi wa xadimu rasulihi dak ci lu ne loolu moo ko génne fii moo ko yóbbu gabon moo ko teqalee ki njabootam moo ko def lépp ba ni ko suñu borom mujjee baaxee ko mu am loolu noonu ba mu mën a yëkkati loo xam ne nazaani min al walal baaxil xadim allamahum bi annani al abdul ba ni ko suñ ni mu waxee ne suñu borom seppi na ko ci mbindeef yi ber ko fële te it képp ku ci am tawfeex xamal na la ne la kii moom mooy al abdul xadim muy li ko taxoon a jóg mu yitte ndax bu mu ñëwee yitteem ju kawe fépp da ciy fés gis ngeen loolu sëñ Abdoulaye di nettali ci bi bi gisee ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam te xam ne gis yonent sallallahu alayhi wasallam dañuy ne jullit bi bu gisee yonent sallallahu alayhi wasallam jaxaran lu dul ay nelaw mooy seetaan mënatu koo yàqal ci dundam mucc na ci seetaan dootu ko yàqal waaye kon mënoon naa doy loolu ndax sëñ fi mu bokk moom lañ fi njëkk a dégg ku am loolu askan bi mu bokk te askan bu baax lañ ku ci am loolu ci moom lañ ko njëkk dégg waaye bi mu gisee loolu doy ko daa mel ne da ko yokk aw maat ni ko sëñ ba si di waxee si mu wax yéen sansam ne ko li bëgg mooy bokk ci ñii ñii ànd ak moom muy ahlu badr ñu wax ko la ca la cay tegeen lii kat ku mas a toll fi nga toll mas na koo bëgg waaye bu ñu ko waxee li ko koy may da ciy génn ndax nangam bi natt lañ lay teg te boo delloo ginnaaw lu toll ne tarfatal ayn da ngay ñàkk li nga amoon lépp waaye ci tëju kawe yi mu ne moom de bind du ruu gi bay xam lu mu attan ak lu mu attanut waaye bu ñu ko mënee garantir ruu gi moom jomam attan na ko bu ko mënee garantir ruu gi moom jomam attan na loolu loolu mooy yitte ju kawe dëgg-dëgg mu siñeente ak yéen saa sant loolu mu dox ci lool ci la daj lim daj lépp xam ngeen loolu koor gi la ci korite gi ci la génn dem Mbàkke Baari ci safar gi lañ ko fi jëlee yóbbu ci géej gi dellusiwaatu Tuubaa moom loolu keroog dañu gisee coono yooyu yëpp mu daj ba suñu borom mujj ko fay nag mu ne addani yàllaahu min ahli badri loolu mu ko mu signé woon yéen saa salaam mu mujj suñu borom defal ko ko ginnaaw bi mu ci doxee kon loolu lépp day fësal rek ne yitte ju kawe lu mun ta ñàkk ci jullit la sëriñ bi du bëgg lu tuuti lu ne rek la ca gën a kawe lay bëgg bi mu ñëwee dafa fekkoon ñuy wax alfadlu lil mutaqaddimi wala maa asaha ilmu man taqaddama ne daal rek nga li ñuy jiitu yóbbu nañ ko moom bi mu ñëwee mu ne déedéet ngëneel ci loxol yàlla képp la nekk jagleelu ko benn génération bàyyi beneen jagleelu ko wenn xeet bàyyi beneen ci loxol suñu borom la nekk suñu borom amul démb ak tey ak suba moom temps ci ñun la am waaye suñu borom amul lool mu mu mu xam ne mu xam ne ne moom li jullit bi war a jàpp mooy ngëneel ci loxol yàlla la nekk te ku ko sàkk mu jox la ko mu nekkoon ci tarixa xaadiriya xëy xëy bi mu gisee Rasul sallam daal ne daal mbir yi ni mu ko gisee moom ñii nga xam ne ci yeneen sens la ñuy jëlee moom foofu la bëgg a jëlee ci nit ñëpp maanaam ñii mënees na leen def ay nawle li ñuy baax baax moo tax bi mu ci jotee rek ci yeneen sens mu wax ne sëriñ si kat ñi ngi doon topp ñëpp ay weer lañ ak ay biddiw am nañu leer wax dëgg yàlla am nañ njëriñ waaye nag leeru biddiw ak ak ak weer bu ñu koy wax mooy jant bi dafa génnut waaye jant bi su xasee génn soxlaatuñ biddiw ak weer bi te nee na gis na jant bi te jant mooy yonent bi sallallahu mu ne zahadani tuluu shamsin an nazar ila nujumi fi samaai wal qamar jant bi génn ko tax na ba xoolatuma weer ak biddu bi ndax soxlaatuma leen daa di dox ci loolu nag wéy ci wéy ba ni ko suñu borom baaxee daañu baax ñi li ñu amoon ci seen i bopp mu am ko ndax xam ngeen tarixa yombut tarixa yi am ci ci ci alamul islaami bi yëpp bëriwut fu mu ne daxawaat yi ci biir tarixa ñoo bëri maanaam benn tarixa boo ay woote ci biir loolu moo bëri waaye tarixa yi bëriwul yu néew a néew la sax bëri na sax yi ñëw waaye tarixa yoo xam ne ay daxawa lañ fi mu ne euh, mu dox ci loolu kon moom siñ bi ba suñ borom defal ko tarixaam muy kenn ku ñu njëkk xam ci nit ku ñuul ku ko am moo tax daana wax taalibe ne leen lan yetu la sanadu ko buum gi leen di jokkal yéen saa salaam du gudd ndax da naan man mii ne moom ne leen buum gi leen di jokkal yéen saa salaam du gudd ba fi mu ne nii mën nañoo gis ñoo xam ne seen diggante ak yéen saa salaam ñaar nit fi dox ñaar maanaam ku mel ne sëñ Muntaxa ci sëñ Basiir la jëlee mu jële ci suñ Tuubaa mu jëlee ci yéen bi saa salaam loolu moom gis te fi mu ne gis ci suñu gox yi yëpp ku am lu yées juróom-benn jàpp juróom-ñetti nit yombut te siñ bi la leen doon wax ne leen lan ngetu la sanadukum bu ngeen ci jàppee buum gi leen di jokkale gën sam-sam du du gudd taxawaay boobu mu amoon nag ci xam le ne ngëneel ci loxo suñ borom la ne benn jamono moomuñ ko beneen ñàkk ko amul wenn xeel bu ko am beneen ñàkk ko loolu sëñ bi da koo jëf ba pare da cee fësal ñaari mbir yu am solo maanaam li ñuy ay rupture ay révolution yu am solo la ci def benn bi jëm ci wàllu xeet benn bi jëm ci wàllu jamono ndax bi jëm ci wàllu xeet <coughs> ah, ok kon ñuy nuyu sëñ Hamza sa sëñ Sonia bu di ko siyaare di ko jox wàccuwaayam kon ñaari ñaari révolution yu am solo la Cheikh Khadim def ci jëf jooju mooy fësal na ci bu baax ne ngëneelu suñu borom amul wenn xeetu ko moom bàyyi weneen ngëneelu mit amul jenn jamono ju ko moom bàyyi yeneen mooy li mu wax ci masaalikul jinaan ne euh, fa laysa yujibu sawaadul jismi safahatal fatah wa suwaal fahmi ne der wu ñuul kat tekki wut xel mu gàtt wala ñàkk a mën a àgg fenn fi ci xam-xam xam ngeen ci beneen masaalikul jinaan sax waxaat na fa lu gën a kawe ne fa laysa yujibu sawaadul jismi adama fawzin bi azimi xismi nekk nekk nit ku ñuul ka kat téewuta mën a am maqaama ak daraja mag ci suñ borom loolu suñ bi dagg ci ay xalaat bu juunu bu nit ñi amoon ci ci ci wàllu der bu ñuul mu mu mu wane foofu ne mbir mi ngëneelu suñu borom loolu néewut ci ay der bu ñuul ak der bu weex ak der bu ci lool waaye mi ngi nekk rek ci pas-pas ci yitte ak ci góorgóorlu mu defaat beneen révolution bu am solo ci wàllu temps mooy li mu wax ci Masaalikul Jinaan ne wala tuxassis fadla rabbin xad ala lisi taqaddumin faqat fatajahala is rubbama uri fatan muaxara maa xaaba am man qablahu wa asula nekkat ngëneelu suñu borom bu ko jagleel rek ñi yàlla foog ni ñi mujj mënuñoo raw ñi jiit woon daanne déedéet léeg-léeg sax mën ngaa gis ku bokk ci ñu mujj ñi am ci daraja ak maqaama loo xam ne ñi jiitu woon sax amuñu amuñu lu toll noonu loolu euh, lu am solo la siñ sëñ bi def xam ngeen sëñ bi mooy kenn nit ku ñuul kuñ xam ku am tarixa boppam boo xam ne moo ko moomal boppam bi mu ñëwee dafa fekkoon nit ku ñuul ñu di ko xeeb di ko xeeb di ko xeeb ba am ci nit ñuul ñi ñoo xam ne dañoo dañoo mujj xeeb seen bopp jàpp ne dañoo bu ñoom maanaam nit xam nga nit da nga ko xeeb ba mujj mu jàpp ne daa xeeb loolu dafa mujjoon am ñoom dal ci nit ñu mel ni sëñ bi bi mu ñëwee moom mu dagg jéng yi dëpp mbir mi doxee weneen dox fent yoonu boppam wéy si ba mujj ñëpp nangul ko mu nekk imaam ci biir jullit ñi ba ngeen di gis waa Madinal Munawwara jóge ca Xijaaz ñëw fekk si ko njaareem di sàkku si ci moom ñaan moom mi nit ku ñu nekk fii ci Sénégal ay nit jóge ci wetu barab bi moom ay ñaan mu jox leen loo leen bu ngeen demee na ngeen ko leen njëkk naa la loolu yitte ju kawe moo ko may tubaab yii nga xam ne duñ ay jullit mujj na ñëw di sàkku ci moom dimbal ba mu di leen dimbale ci lu dul benn du ñaar ba ci dévaluation boobu amoon mu joxe 500000 dimbale leen dimbale waa fii ndax xaalis bu waa fii koy jëriñoo at moom noonu président France 50 000 la joxe bi siñ bi joxe 500000 te jiite France cinquante mille la jot te boobu boobu mi ngi fii ci Sénégal waa Mauritanie lim leen doon dimbali kenn xamu mu toll pes boobu mu joon am si di gaalu xaalis daf ñu noonu gaal waa ko Cheikh Sidé ba léegi gaal gi ngeen ñoom xottu gaal mu àgg foo xam ne ñëpp dañ koo jàppee imaam ci biir diine ji muy doon doon bokk ci ñu mujj ñi doon nit ku ñuul jëfinam taxawaayam yitteem bi kawee tax na ñëpp jàppee ko imaam ñëpp jàppee ko kilifa ñëpp fonk tubaab ba ci seen loolu ñu taxawaloon conseil conseil xaw ma lan des affaires musulmanes boole woon nañ sëñ bi muy kilifa jullit ñi donte mosu caa mosu ko yiteewu si Ahmad bin Beddi ci kilifa yi tiyaan yi gën a mag ci Mauritanie la bokkoon àggoon na ci wóolu sëñ bi donte du taalibeem wóolu sëñ bi xam ne kii li muy woote dëgg la ba mu yónnee ci moom ne nee leen sëñ bi nee leen ko na ma nuyul yéen bi saa salaam na ma nuyul si Ahmad Tijaan radiyallaahu anhu te buñ ma fayee na ma ko jotali sëñ bi teg ci ab diir yónnee fa ne leen nee leen ko yéen bi saa mi ngi koy fay. Cheikh Ahmad Tidiane yi ñu ngi koy fay doomam Cheikh Mouhamadou Lamine nee na Cheikh Ahmad Ben Bette dañut ba ni mu génnee àdduna saa bu ci xel mi demee mu yéemu ne cey ngir xam na ne li ko suñu wax dëgg la keroog bi muy génn àdduna sëñ bi da cee def lu yéeme Cheikh doomam Cheikh Mouhamadou nee na dañoo xëy Cheikh Cheikh Ahmad Ben Bette ci guddi gi la génn àdduna suba teel lañ xëy ndaw yi sëñ Tuubaa ñëw indaale ak xasida ne sëñ bi leen yabal nañ ñëw fekk si denc te yëgal yëgalaguñ ko kenn mu boole ci ak xasida wax ci wax yi doy waar ne Cheikh Ahmad bin Badi bi muy génn àdduna Seydina Jibril wàcc na ànd nag nangami malaaka yu bari ñu ñëw ngir terale ko loolu ba gunge ruum gi yóbbu ko ci kaw daan ne loolu mi ngi ko amee rek ci menn mbir moom Cheikh Ahmad bin Badi mooy li xusni zannihi bil abdil xadim yi kaana lahu bi kalamihi baaxil xadim nan li ko may rek mooy rafet jot bu rafet jot bi boole ci xasida laqad jaa ruuxul qudus wa huwa mufarriju bi jundin azimin li ahmada indallahi ma kaana yartaji lahu baana xayrun baabu laysa yurtaju ba xasida gi jeex ne loolu lépp mi ngi ko amee ci rafet gim rafet njort la ci sëñ Tuba radiallahu anhu wa arda kon loolu lépp ay bind la yu yuy fësal euh, sëñ bi euh, yitte ju kawe yi nga xamee ne amoon na ko te mu bokk ci bind yi nga xam ne jullit ñi dañ ko war a jànge ci wala watani taalibe xam ngeen Cheikh Alfaal keroog bi muy ñëw di jëblu ci sëñ bi ci mbag Kajoor foofu la yitte sëñ bi ñëkk feeñee bi mu ñëwee ci sëñ bi wax ko wax ju rëy ne ko man de sëriñ bi ma doon wër bu ma ñëwoon ba gis ne fi mooy barabam dama xam ne fii la sama yitte sama pas-pas dina ma may li ma bëgg si moom ma am nee na sëñ bi ne ko man de yonent bi salaam laay roy li may wut ci moom laa koy wut xam ngi ma xam ne asamaan si mas na ko tiim benn bis suuf si mas na cee teg tànk benn bis loolu doy na ma sëkk ci li ma bëgg si moom dinaa ko am Cheikh Fall xam ne kii moom mooy waa ji mu bàyyi mu jiitu mu toog ci ginnaawam mag ñoo ñu toppoon ci Sëñ Tuubaa loolu lañ ko toppoon beneen a jommal ci lépp ñu xam ne moo leen fopp ci lépp ñu bàyyi ko mu jiitu toppuñ ko toppewuñ ko juddu toppewuñ ko xam-xam toppewuñ ko alal waaye dañ koo natt ci lépp gis ne moo leen ci raw ci pas-pas ci xam ci gëm yàlla ci doyloo yàlla ci wéetal ko ñu xam ne kii mooy waa ñu bàyyi ko mu jiitu ñu topp ci ginnaaw ñi tëju kawe jooju nag dañ ko war di jàngee ci sëriñ bi feeñee ci loolu ma doon wax sànq bi ko yénu saa sallam feeñee ci daal xudus lu mu wax mu ne ko bëggul lii li mu bëgg daal mooy bokk ci kuréel gi topp ci moom rek loolu yitte ju kawe fës na ci loolu te mënoon naa doyloo rek li gis yéen salaam te xam ne ne askan bi ma maa ko ci njëkk am bu ko doyloo woon mu doy sëkk nag bu ko doyloo woon mu doy sëkk kon bind a ngi foofu ci bépp jullit ci mu xam ne dunduk sëriñ bi war nañ cee jànge yitte ju kawe beneen bi ci topp mooy bind buñ mën a jëlee ci ak dundam ci wàllu mbaax ak rafet jikko loolu nag dama ciy jël rek seere soo xam ne ki ko seere du jullit moo may gënal sax may jël ab jullit wala koo xam ne ci waa kër bi la bokk Antoine Lefebvre benn tubaab la woon bu nekkoon jaay dem boo xam dañ ko indi woon rek moom yitte mu xam Cheikh Ahmadou ko bëgg a bëgg koo bett ba xam na ci fu mu koy fekk nee na léeg-léeg boo xam bi muy ñëw daa am ne bi dafa ñëw rek ngir setal sama mbir nee nañ mu jaaxal leen ndax kii ni mu melee ba pare di satal mbiram waaye bi mu demee ba noppi ba bind rapport bi bi mu xam ci sëñ bi rapport bu gudd la am na fi lu ñëw ci téere omal ba boobu bi mu génnee rapport bi lañ xam ne lii la siñ bi doon wax ci biir rapport da ciy wax ne Cheikh Ahmadou Bamba mii nag li ne ci moom ci jikkoy rafet ak xol bu sell ak yéen ñëpp aw yiw moo xam ab noonam wala xaritam àgg na ci foo xam ne mbooleem ku ñuy tudd ci nit ñi jiitu woon buñ ko ci méngale moom mu jiitu ko ci moom mi daan ñi ko gën a réere gën a réere gën a réer ci nit ñi mooy ñi nga xam ne mas nañ koo tumaal benn bis ne bëggoon na daray nguur wala daray àddina lii ki ko wax dub jullit kon loolu mooy wane ne jikko ju rafet jikko ju rafet jullit war na koo fonk saa su ne xam ngeen sëñ bi wax na ne bi mu nekkee Gabon am na kenn ku nekkaloon ci tubaab yi ci njiit yi nekkoon foofu koo xam ne mbaax gi mu xam ci sëñ bi taxoon na bu buy dem mission waa këram sëñ bi la leen dénk koo xam ne da nga ne dafa def dara ba nga jàpp ko indi ko fi ba pare booy dem di ko dellu si waat loolu min ci mi nan loolu lépp di wane ne euh, mbaax gi suñu borom da ko bindaale mbaax da koo bindaale xammee wuti ku ku ku ko bëgg ku ko bëggut bokk na ci bind yi ñu mën a jëlee ci dunduk sëriñ bi it mooy ak nite ak dégg sa jamono loolu dafa fees dell ci dunduk Seex Xaadim radiyallaahu anhu maanaam xam jamono ji lim laaj nga def lool sëñ bi bi mu ñëwee fekk na ay jàmbaar yu mag jaase xeexal lislaam ba sonn bi mu ñëwee daanaka mën nga ne jullit ñi ñaari xaaj lañu woon yi gën a fës ci kilifa yi ñu gëm ne dañoo war a xeexal tubaab yi jël seen gànnaay ñooñu tubaab yi faagaagal nañ leen ñëpp ndax doole tolloo wut ak ñeneen ñu gis ne biñ màndaxee diggante ceddo yi ak tubaab bi jàpp nañu tubaab yi tane ndax lu métti bàyyi nañ leen ñu léegi def yëfi fa ñu maslaa ñoom ñoo ñoo ci gën a bëri xëy mën naa benn benn yu génn ci loolu sëñ bi moom bàyyi ñaari yoon yëpp jëlum gànnaay waaye maslaa wut ak tubaab yi xàll yoonu boppam mooy bi mu gis ne ni tubaab yi jiitu nañ ci ngànnaay dafa dem jiitu leen ci xol yi ak ci xel yi mooy ci wàllu xam-xam xam ne loolu beneen révolu beneen euh, beneen beneen beneen résistance la boo xam ne bu pacifique la bu jël ngànnaay waaye buñ demee ba pënd bi wuri rek mooy ëpp le résultat moo tax mu ne inni ujaahidu bil yi wa bit tuqa abdan xadiman wal muhaymin shahida ndax xamoon na ne mbir yi foofu lay mujj moo tax bi bi mu ne bëri rek dafa samp ay daara samp ay nit seexal ay nit tasaar leen ci réew mi mooy waral bi ñu ko yóbboo ci géej gi ba foog ne mbiri jeex na fekk gars yi ñu ngi liggéey ci suuf bu ñëwee day mel ne benn acier buñ teg ci biir weñ rek bu yëkkatee lépp da koy topp moo tax bu ñu ñëwee dañu ko indee daaru mën naan rek mbooloo mi toll noo xam tubaab da leen jaaxalaat ñu daal di gaaw dara ci yóbbu ko gànnaar kon loolu it bind la boo xam ne nit ki war naa xam ne jamono ju ne rek rawatina ku bëgg a xeex say àq ak sa yelleef ak yooyu maanaam résistance daal mën naa am te violence du loolu mën naa ne te Sëñ Tuubaa jàngale na ci aw yoon bu baax baax danañ jàngee ci ak dundam mën a jéggale ak di suuxat jàmm te yàlla rek tax nag te yàlla rek tax doo jéggale ngir da ngaa amul pexe doo jéggale ngir ay calcul la lan waaye da ngay jéggale te yàlla rek tax xam ngeen suñ borom suñ bi wax na ci ay mbindam ne keroog bi mu génnee baar yi suñ borom da ko booleeg ahlu badr ne leen nañ ànd ak moom te saa bu ko noonu sonalee ba ñu war a réagir nañ ko def buñ ci waree dugg waaye sëñ bi dem na ba ñëw mës fa jëfandikoo ahlu badr gis nga da koy junj sax fa woon sa amri li mu xew am li ma ahli badr bilam ci raay jëfandikoo loolu mooy ku bëgg jàmm dëgg-dëgg am ngaa naay te nangoo ko jëfandikoo mën a jéggale lool tey jéggal te yàlla rek tax gis ngeen lim daj nga xam ne bi ñu ko yóbboo daat nee na tey sama kër ya wéet na tasaare nañ ma sama jabar bi teqale nañu te lan dong ma ko yóbbee mooy li may liggéey yoon France la xusuuri xalat wal ahlu an ni tafarraqat li ma xillasi anhu madiha coono yu métti mu daj ko xam nga sëñ Tuubaa du jàmbat ku dem bay wax tubaab ne leen kat tooñ ngeen jaamu yàlla bi tooñ ngeen ko tooñ ngeen ko ci loo xam ne tegu leen ko benn dëgg tooñ ngeen koo xam ne du fayu génn ngeen ko digg bëccëg ci njabootam mu daj ci coono yu dul jeex te tegu leen ko fenn zalamtumul abd allazi laa yantaqib li nafsihi mujahidan lil muntaqib axrajtumuhu min diyaarihi bila xaqin wa jaahada wa xaasaahul balaa diggante boobu daj na ci lu ne ci ay mettit ak i taksar daani leen waaye loolu lépp bi mu amee it li waji man anhu afa ankum afa jéggal na leen ngir yàlla ngir jëm yàlla topp leen dara nee na li li fi des daal mooy mi ngi ñaan suñu borom rek mu defal ko lim bëgg waaye jéggal na leen te yàlla rek tax waxoon na ne sax tolloon na ci mbindam foo xam ne suñu borom xamal na ko ne ko ndax nee na bi xasaay di jihaad yi doon di moolu tubaab yi na ci suñu borom xamal ne ko boo bawul mbind kuy ab yéefati na ci kaw suuf bu tuubu dina alko mu jéggal leen bàyyi muy law anna nii lam atruk muy euh, law anna nii lam atrukil kitaaba mujahidan biha zawil isaaba la maata bil wabaayi kullu kaafiri in lam yatubu li ilaahi algaafiri laakin afawtu an jamii nnaasi li wajhi rabbin muhlikin xannaasi na suñu borom mujj na ma ahmadu boo bawul mbind mi kuy ab bu tuubu danaa ko mu ne kon jéggal na leen te yàlla rek tax loolu ci bind yi wala jëlee ci mbindu sëñ bi la ci mën a jéggale moo tax fu ne dafay seeral suñu borom ne ko jéggal naa leen te yàlla tax wachat bi man nafaahum li gayri samaran lastu alfahu afawtu anil aadaayi ma safrikal kali jéggal naa leen ak xol bu sedd guy jéggal naa leen te yàlla rek tax fu muy wax jéggal naa leen sax faaw da ci boole suñu borom xam ne yàllaa tax mu jéggal loolu bind la kon bu am solo moo tax gis ngeen liñ bindoon bi mu demee ba ñëw ne ku gis lii kat na xam ne ki ko bind jéggal na képp ku ko ma sa tooñ te moom du ñaan yàlla ab tooñkat mi ngi ñaan suñu borom mu jëggal mboolem ay taalibeem di xamal ñëpp it ne lim yéene taalibeem yi moom la yéene mboolem jullit ñëpp loolu suñu tubaab bind na ko. loolu bëgg jàmm foofu la ma neen ku ma naa la du ma ñaan yàlla sama waa kër ma leen yéene moom laa yéene mboolem jullit ñëpp loolu bind ngi ci ci ci ne kon jullit ñëpp ay mbokk lañ yéene yow jullit ñëpp it ñëpp ko war def waaye rawatina ñu bokk ci waa kër sëriñ bi. yéen ñëpp jàmm ji amul fu mu yem waxtu waa ngi sori waaye amul fu mu yem gis ngeen daaral ma naan li mu doon métti métti bi ñuy ñëw di ko jàpp si mi ngi génn xasid ak euh, rabbi bi maaye saxat di wax ci biir euh, yaa maalikal mulki yaa man jalla an xawadid irham jami al wara yaa haadiya bada yow suñu borom yow mi borom nguur gu mag gi yow mi nga xam ne weesu nga fooy faw fooy fayantoo maa ngi lay ñaan nga yërëm mbooleem bi def yëpp loolu euh, bëgg jàmm foofu la mën a yem waaye nag lim doon bëgg-bëgg jàmm yi beneen bind ko bu ñu mën a jot ci ak dundam mooy am fulla Sëñ Tuubaa ku am fulla la woon ci boppam lim doon lewet lewet mën a nëbb mer du topp kenn teewut kenn du ko ñaaj li mu nekk nekk ci biir liggéey fulla ji jamono sa saa su ne day feeñ moo tax sëñ Basiru nekk na ne ba mu nekkee Gabon am na benn waaju fa nekkoon doon ko fontoo di ko dëngee am ku ñëw ci moom sëñ bi ne ko daal damaa bëggoon kii nga xool noo maslaa ak moom rek ndax ni lay def daal gënut ba bëggoon rek nga maslaa ak moom nee na sëñ bi ne ko soxlawu ma maslaa ak moom ndax jaat bi ñu koy def ñu ngi koy yett te leen mu noppi ne ko laa axtaaju laa musaalahatihi li annahu xaruba tamaamu naqsi taabutihi lazi yuqbaru bihi waa ji nee na ay fan yu néew lañ ci teg waaja waaja feebar faatu faatu sax dafa dee dee ci saa si nee mu ñëw ci sëñ bi ne ko man daal sa mbir yéem na ma ndax waa ji ma doon wax ñu ngi noonu ñu def ci ak keesit néew jëmee ko Dakar faatu na yamqutuhu yamqutuhu sultaan wal nasaara min yow mi fii taabuuti xabrin saara amut sikk sëñ Tuubaa ku ko ku ko xëy tooñ bu yororee da nga koy gis amut sikk gis ngeen bi muy dem daanaa ci fulla ji Merlin mi nekkoon gouverneur xam ngeen sëñ bi woo nañ ko ay yoon génn ndax amul amul ndigal Cheikh naa wul da benn naat mandal nee na bi mu jubee Merlin mu nuyu ko moom Cheikh naa mooy Cheikh Sidi yebaloon nee na bi ko sëñ bi jubee bëggoon nuyu Merlin da non bañ na du nuyu sëñ bi moo xam bëgg nañu wut bi mu ko nuyuwut ah, moo xam ne sëñ bi sëñ Tuubaa gi ko nuyuwut yaa ko yëg waaye nee na bi mu ko nuyuwut Cheikh naa neen bi mu ko nuyuwut sëñ bi dafa wax ci kaw ne alhamdulilahi alladi mana hada alkafira min an yamassa jildi jildu min an yamassa min alhamdulilahi alladi mana hada alkafira min an yamassa jildi jilduhu ne sant naa yàlla mi nga xam ne dox na sama diggante ak yéefar bii ba yaramam laalul sama yaram ca kaw nen la ko wax Cheikh naa ne bi ñu génnee sëñ bi da koy tooñ naa ko yaa Cheikh naa laxat baa laqta fi li naa ko Cheikh naa nag ni nga wàccee sa bopp ëpp na nag yii kat ëpp na waaw Cheikh naa foofu la toll moo tax loolu di wane ne fulla ji sëñ Tuubaa li muy baax baax li muy bëri bëri yéen ne fulla ji moom kenn du ko ñaaj loolu ci bind yi ñu war a jëlee ci moom ci la bokk euh, ma njëkkanteeg waxtu tuuti rek bokk na ci bind yi ñu ci mën a jëlit mooy sax ci say gëm-gëm ay principe suñ tubaab mës a soppi maanaam li mu déparé woon ba ni mu fi jugee mës a soppi ba mu fi nekkee jamono si ma doon sëli ba ni si ma doon sëli jugee ba ba ni mu fi jugee moom mës a soppi gis ngeen jamono yi si ma doon sëli xam ngeen xasida xaalu safi moom li ko indiwoon woon mooy ay nit yu mu romboon rek dëkk bu suñu ma doon sëli demoon di fa gane muy dem di jàngi ànd ak maam Thierno bokk ab téeréem bi mu leen rombee nee na benn waaye xool ko am kum ne xanaa kii mooy seen mbokk mu wéré di ñu may dégg nee na kooku mbokkum suñu kooku nag ah amum daal nii la ginnaaw bi ko wax sëñ bi ku la romb rek bokkub téeram bi jàngee nga ne kii la nit da xasida googu xaalu li safi anhu basari wa rabati an zawil ba xasida gi jeex ba ca mujj muy wax na alhamdulilahi is kaanat safahatuna idaamatal wirdi wal azkari wal fikari su dee ndof gi mooy sax ci wird sax ci tudd yàlla sax ci kennal suñu borom ak di ko xalaat màggal bu dee loolu mooy ak ndof sant naa yàlla ci ndof gi dof loolu mu sax loolu rek bi fi sëñ Mor Anta Sali nga xam ne xam-xam dong moo ko yitteel li nit ñi nekk yitteelu ko bi fi si moom seen nekkee Samba Lawbe Fall àggoon na ci jarbaatu Lat Joor sàkku ci moom mu ñëw féete ko fi si moom seen féete Lat Joor mu jox ko ngànt ne ko doomi jullit ñëw di sàkku ci xam sama ngor mooy ma ma ma baleen fi da ko wax loolu ngir rafetal rek ne ko ngor mooy ma daal ma baleen fi di ñëw di di di di ànd ak yow sax ci loolu loolu noonu moo wéy bi fi suñu moroom seli jógee ñu waxoon ne ko nañ dem ci Lat mu jox la place bi mu ko joxoon mu joxe ngànt ne leen man laa azabu ilal umaraayi wala argabu fi fi dunyaahum wala atlubul karaamata illa min allaahi rabbil arbab ne leen man du ma dem ci buur yi seen mbir yi teelu ma te teraagal suñu borom dong laa koy sàkko mooy li muy wax xaalul yarkan li abwaabi salaatin taxus jawaari si taxu ni kulla maaxin fa qultu xasbiya rabbi waktafaytu bihi wala su raadiya gayri l ilmi wa diini wala su arju wala axsa siwa maliki li annahu jalla yuxni nii wa yunjini nee nee nañ ma kat naa jàng jëm ci buur yi waaye ma ne leen nag man yàlla doy ma da doyloo naa ko xooluma lu dul suñu borom wutuma lu dul moom ba waxte mujj ga euh, nu mu koy waxee sax euh, in kaana aybiya zuhdun fi xutaamihum fa zaaka aybun nafisun laysa su fekkee lii ma wan ginnaaw poñatum àdduna mii moo tax ñu di ma sikkal sikk soosu man bëgg naa ko amul sikk bëgg naa ko daal euh, loolu mooy rek ni sëriñ bi doxee nga xam ne bi mu ne bëri àdduna dafa daw wut si ko mu wan ko ginnaaw mu dox ba yàgg àdduna ne waat kër kër ne waat cëpp ci kanam moo ko ginnaaw bañ ko faale mooy li muy wax ci mun a wéru surul aqbalati dunia ilaya qablu wa baaduha fa zaala an alkabl moo tax gis ngeen ci yaareem bi Cheikh Fall dajeeg sëñ Fallu ci kër sëñ mag radiyallahu anhu nee na sëñ mag bi jox leen ndab dugg ci biir ne leen nañ xewlu Cheikh Fall nanguutu xewlu ne sëñ Fallu xewlu ba noppi bi sëñ mag bi génnaatee de laata muy génn bi sëñ Fall di xewlu ba yàgg mu xool Cheikh Fall ne ko joxuñ ko sëñ ne ko moom yéen ñi ko xamoon démb ci Mbàkke Kajoor ak ndax am na lu sopp ci moom nee na sarafaal na tekk ba yàgg mu ne ko su fekkee am na lu sopp ci moom de xanaa karaw gi la bu njëkk da ko daan bàyyi muy sëq te léegi da koy wat ne ko loolu daal laa xam ci lu sopp ci moom sëñ Fall nee na bi ñuy wax loolu la sëñ mag bi génn ñëw daal ne xewlu ngeen mu ne Cheikh Fall nee na sëñ Fall ne ko nee naa naa xewlu ba noppi daal sëñ bi ci baatin bu dee mu ne ko tey Ibra Fall moom de Mbàkke Kajoor ba léegi dara soppi moom fës na ci bu baax sëriñ bi euh, ne naka jekk ci loolu la sax mës sa soppi ku ñu ko xam ñëpp loolu la wax mës sa soppi mës kon bind ngi ci ne nit ki lim xool ba xam ne lii mooy dëgg mooy lu baax dara waru ko cee jóge bu juróom wéet moom képp la bu juróon wéet moom képpit da cee war a sax ngir ñu njëkkanteeg waxtu wi ay bind ngi nii yoo xam ne mën nañ koo jëlee ci jëflante bi war a am diggante nit ak ay mbokkam mooy ñàkk a xeet say mbokk li siñ boo xam ne nit ku ne mën naa ñett mbokkam waaye mun leen ñett nit ne mën naa ëpp ay mbokkam waaye mën naa ëppale ay mbokkam waaye mun leen a ëpp mën naa gën ay mbokkam waaye mënu leen a génn mën naa raw ay mbokkam waaye su ànd ak ñoom aw doxinam du rafet moo tax gis ngeen kooku ñëwoon ci moom ku sant Mbàkke ne ko ñun dañoo jaaxle ndax daañu dañ ne yow amoo mbokk te ñun yow dong lañ am sëñ bi joxoñ ko ne ko bu ma ko waxati gisoo kenn ko am ci mbokk kooku commencé bëgg mu nag képp ku ñaan sama mbokk la ku ne lam baax la képp lañ bokk mag moom bu ngeen xoolee ci bataaxal yi muy bindanteel ñi mbokkal da ciy fësal lool mbokk gi mu amante ñoom ku mel ne suñ moo jaara ilaykum ayyuha shaqiq a cheikh Mouhamad Diarra yow mi ma bokkal ñaari waajur alamu ibrahim alamu cheikh ibrahim muy suñ mbakk Kajoor yab na amati wa xaali yow sama doomi nijaay yow sama sama doomi bàjjet sëñ bu Buso ila axihi allazi lam yuxaalifu fi sigarihi wala fi kibaarihi wala fi kibarihi ibrahima ibni walidi lii maa ngi ko bind sama mbokk mi nga xam ne ci ndawam ak magam ma sëw juwee man ibrahima mi nga xam ne ñoo bokk wenn waajur woo góor muy maam Cerno gis ngeen siñ bu soobe ay ayoha cheikh wal xill wal xaal yow sama xarit sama nijaay sama sama sëriñ ngir jàng na ci moom gis ngeen bi muy bind am na ñu muy bind yaa ixwaani wa asaari yooyu yëpp day wane ne sëñ bi comme ci bind ñi ñi may wax ñëpp doo ci gis kenn ko bind ab bataaxal sëñ bi moom ba di ko tudd mbokk gi ndax ñoom ab sëriñ lañ ko jàkk xam nañ ne ko sëñ bam nangu nañ ko moo leen bëgg wan ne mbokk gi dafay nekkoon laata lii dañ ko war a sàmm wéer ko kon loolu bind ngi ci ci ne nit nu mu mën a mel ci xam-xam ci alal ci daraja ci barke ay mbokkam da leen war a fonk te waru leen a xet loolu bind la boo xam ne dañ ko war a dañ ko war a bàyyi xel euh, bokk na ci bind yiñ ci mën a jël ba léegi it lii moom naa ko tëb rek nga xam naa ne waxtu kii na bii mooy ñi nga xam ne ay sëriñ lañ te duñ fi ñuy sëriñ nu ñu leen war a jàppe sëriñ yi ci lislaam te duñ suñuy sëriñ loolu sëñ bi jàngale ci ne ni ñu leen war def ñoom rek bil i'tiqaadi taam wa husni zanni wa adamil i'tiraad ñett yooyu ñu gëm leen maanaam dëggal leen rafet jot ci ñoom te bañ leen a dingat bañ leen a dingat donte duñ suñuy sëriñ moo tax gis ngeen ci masaalikul jinaan muy muy wax fa kullu wirdin yuridul murida li xadratillahi walan yaxida sawaun ila aljilani aw li ahmad atijani aw li siwahuma min al aqtaabi is kulluhum qataan ala sawaabi ne wird yëpp bu ci nit ki jàpp te tënku ci sàtte yi mu ngi ko jëmee suñu borom sëriñ sëpp ci dëgg lañ ne ci lu la lañ ne ci lu baax lañ doon woote yemut ci loolu moom sëñ bi waaye dafa sax wax taalibe mi ne leen fu ngeen gis ak ñaan wala wird bu jóge ci nit ku baax may naa leen ngeen loolu ci Sëñ Tuubaa du ma ne ci moom dong nga koy dégg waaye néewaa na am na ci tariixa yoo xam ne sax boo ci nekkee di yenn yi dañ la koy tere te loolu luñ mën a layal la ñu xam ne waaye moom daa wax sax ne leen wa amma ahzabul aqtaab wa daawaatu saalihin fa azintu lakum bi isticmaali bi fa azintu lakum jamian fi l amali bi kulli ma tayassara bi kulli ma tayassara lakum minhu minha haysu wajadtumuuh ñaan yi jógee ci sëriñ si ak seen ahzaab yi lu ngeen ci mën a jëfandikoo may naa leen ngeen jëfandikoo loolu mooy dëgg-dëgg ubbi ko dëgg-dëgg yi xool lislaam te bàyyi parparloo ci biir lislaam bi yemul foofu wit yëpp da ko doon jëfandikoo ba mujj wax ne ñi yori tarixa ñëpp gërëm nañ ko radiya anni sibtuhu jilaani alayhi ridwaanu lazi alaani radiya anni sibtuhu abul xasan alayhi ridwaanu min xalidul xasan radiya anni sibtuhu tijaani alayhi ridwaanu mu bidil jaani ne ñett ñooñu gërëm nañ ko ñooñu bu ñu ko gërëm mooy ñi yor tarixa ñëpp gërëm nañ ko ne ñu suñ borom gërëm ñëpp gërëm nañ ko ne xulafa al arbaa gërëm nañ ko radiya anni xulafa al arbaa xustu ridal muqarrabin al mutbaa ne suñ borom waa xulafa arba yi xulafa gërëm nañ ko ñi suñ borom tànn ñëpp gërëm nañ ko moo tax loolu bind la boo xam ne war nañ koo jëlee ci sëñ bi ci nekkat da ngay am sa sëriñ jàpp ko waaye sëriñ sëpp nga nangu leen te bañ leen a bind bi it mooy suñu diggante ak suñu mbokki jullit yépp rek ñi nga xam ne bokkuñu ñoom fu ñu fu ñu féete li ñu war a jàpp rek mooy li suñu boo xam ne al muminuuna ixwati wal muminaat lii axawaatun wa xayaati xasanaat jullit ñëpp ñu góor ñi ngi jigéen ñi samay mbokk lañ wax ñaan suñu borom ne ko na ko may mu mu mu yéene ñëpp aw yiw wa aghrina bi hubbi kulli muslimin wa najjina min sharri kulli mujrimin nag ma def ma bëgg jullit ñëpp yéggi foofu sax ba sol bu avocat ci kanam suñu borom bi défendre jullit ñi wa najjihim waafihim wal tuf bihim wala tuwaaxisum bi kusri zanbihim ba bay di jeex ñii kat jégg bu leen topp fa innahum wa in asawka yaa ahad li ghaflatin lam yushriku bika bu ñu la moyee it seen xol yi moom yow képp lañ gëm xam nañu yaay yàlla yaa fi nekk buñ la moyee it dañoo topp seen bakkan rek kon jéggal leen ne ko nag sa yërmande gii boo leen ko joxee du la wàññi dara te ñoom buñ ci jotut seen dara du baax kon maa ngi lay ñaan nga jéggal leen fala tuwaaxisum bi maa laa yanqusuk wala humu habil lazi laa yanfau àgg ci wax suñu borom ne ko kat laysa li ummati nabi siwaaka yaa waaxidan ak sartali jadwaaka ne ko kat xeet yoon sansan bii amuñu kenn ku dul yow ma waxin bi muy wax ak suñu borom sax ba nga xam ne dafa am tawfeex maam yow mi nga xam ne kat sa xéewal yi bari na ci man ba mun ma koo lim maa ngi lay wax na nga gestu xeet yéen saa sallam gestu leen ndax amuñu ko dul yow Sëñ Tuubaa ni muy ñaanee suñu borom sax ndimbal da ci am ba nga xam ni ñaan gi buy noppi moom ñaan gi nangu ndax fu mu ko yaalu shakawtu umuri wa zanbil azim li rabbil xadiril gafuril rahim inni aqulu wa inni al yawma zu xajali min kasrati zanbi wal afati wal wajali bari na bari na yuñ ci wax fa inni la imun asirul hawa wa asin walakin ilahi halim ba buy wax ak yonent sallam sax yaa sayidi yaa buxiyati yaa yaa junnati haasi mubayaatun ila yawmi liqa yow sama sopp bi yow sama ki ma sopp maa ngi maa lii kat ab jaayante la maa ngi ko jaayante ak yow ba bañ ñi dajam ak yow nga xam ne fi muy buy wax sax da ngay xam ne kii daa am tawféex ci anam gi muy waxe bi ma ciy mujjee rek mooy ay bind yoo xam ne nag kilifa kilifa war na koo am ci digganteem ak ñim yilif bi ci jiitu mooy kilifa gu ne bu jiilifee ak njabootam war naa am seen yërmande loolu danañ ko jàngee ci dunduk sëñ bi yaa rabbi jaalil muridina maa ma xisnika alxasin wa shamla jamaa suñ borom muridi maa ngi lay ñaan nga dajale leen nga boole leen ñu nekk benn aar leen te buñ teqali ko yërëm leen bu ñu amee ay jafe-jafe lu mu ci man da ko ci def gis ngeen ba mu nekkee ca Gabon suñ làmpañ set ak euh, suñ ba ca des ñaar lañ am na fu ñu leen yóbbul Luango ñu bind bataaxal yónnee nekk suñ boobu suñ baa ngi Gabon di ko wax ne ko tubaab yi dañoo indi fii wax ay wax daal di ko wax seen mbir suñ bi nee na bi ma jotee seen bataaxal rek aslamat alaya wax wa takaddara waxti shafaqatan lahuma nee na àdduna dafa lëndëm këriis ci man ma nekkatuma ci jàmm daal ndax euh, yërëm naa leen ndax xam naa tubaab bi bu baax a baax te xam naa ne mën nañ leen def lu tax seen ngëm ak seen pas-pas seen borom am lu ci sëkk nee na dafa maa fekk may bind ak xasida ci saasi damaa soppi ni ma doon bindee ñaanal leen yaa xayra gaafirin zunuban makka wa xayra xaadirin asiran fakka ufkuk riqaabal muslimina fakka wa kuffa anhum maa yajuru shakka yow miy jéggale bakkaar yow miy tinki jéngi tinkil jéngi jullit ñi te musal leen ci lépp lu mën a indi jii jaaxa ci pas-pas bi ñu war seen diggante ak yow loolu kilifa diine daa am boobu responsabilité bu ko yëgee ak bu ko yëgut yërmande ji mu war a am ci ñi nga xam ne da leen a da leen da leen a jabote ak nosu sëñ Tuubaa jàngale na ci lu baree baree bare dëkk yi mu sos jëwriñ yi mu doon sanc yi mu doon yi doon samp maam Cheikh Anta Faye Daaru Salaam sëñ Mbàkke Bousso bi muy dem Mbàkke baal mu bàyyi ko Touba borom daaru moo ti yore daaray xam-xam ji sëñ Daa Abdourahmane yore daaray alxuraan ji bi muy dem ci gi mu jël jaboot gi teg ko ci loxol maam Cerno yooyu nosu noonu loolu bind la ñu war a jàngee ci sëñ bi li mu bëgg mu leer ci moom boo xoolee Matlabul Fawzayni nga xam ne kii li bëgg leer na ci moom maanaam mashron bi am na ruya vision bu leer am na manhaj muy méthode bi mu koy jaar xam na ko am na waax yi tamit ci lim soxla ngir mën a ngir a jëf loolu waaye fonk diisoo bokk na ci li kilifa yi war a jàngee ci dunduk sëriñ bi mooy fonk diisoo ak ñi ngi yilif donte yàlla leen yilif li suñ bàkk bésa di wax naan képp ku nee nañ képp ku bëri li muy diisoo lam yaadam inda sawabi maadihan wa inda alxata i angéra képp koo xam day diisoo bëri lu muy diisoo bu jëfee bu dee noonu la nit ñi danañ ko tàgg bu juumee danañ ko jéggal ndax kuy diisoo la sëñ Tuubaa gis ngeen ne école ba mu yox franco mouride sax bi ñu ko bëggee ubbi njaareen dafa dajale mag ñi laaj leen seen xalaat ci tënk rek xalaat suñ bàkk ba su lañ mujj jël bi mu ne nangu nañ ñu ubbi fi daara ji waaye ñoom ñu jàngale ñun ñu tubaab tubaab yi di jàngale ñun ñu wéy di yar loolu ubbi woon bi amoon na fi amoon mooy ku yilif ak njaboot war nga di leen àttu saa yoo ko jaree saa boo leen war a wax dëgg nga jaar ci digg bi nag xam ngeen ne Sëñ Tuubaa déclaration bi mu njëkk a def Mbàkke Baari fit moo ko may ndax ñi fi nekkoon ñëpp xam-xam moo leen fi indi woon mu xëy xëy ne képp ku fi xam-xam képp indi woon man ngaa yeewe ko ñi ëpp dañoo dem ñun ne ñoo fa des Sëñ Basiir nee na bi mu nekkee fii ci Touba mas naa yónnee Daaru Salaam ku ñu wax Sëñ Ablaye Jaw ko boo demee neel ku fi àdduna képp indi mën naa dem ku fi àllaaxira indi mën naa dem ku fi àdduna ak alaaxira indi mën ngaa dem ku fi yàlla képp indi nag mën ngaa toog loolu ku ko waxante ji bu subaa doo gis kenn ndax mbooloo mi kenn nekk fi ak bind nekk fi ñooyam ci moom ci dëgg rek lay àndal ñoom loolu maanaam di wax lu leer bu ñu ko waree wax loolu bind la ci kilifa yi war a jàngee ci Cheikh ba ci Cheikh Khadim gis ngeen rakki lab jot yoo jébaloon biram kod bi mu jébaloo ci moom da ko ne la nga jëlee woon ci xarab sàmm sadio da ngay dem delloo lépp boo ko defu du ma ko nangu lépp nag ci ay xëccoo ki yëf yëfaan ba lab jot nekkoon na ci dal ci mujj bi mu am sens dal ci kaw yooyu yëpp day wane ne naka jekk li suñ bàkk bu soo waxoon ne wallahi ma ahidna xattu yuqiru ala al manakiri euh, yuqiru ala al baatili aw yaskutu ala al manakir la xaifan wala gafilan ne suñ tubaab ñun ñu ko xamul mosuñu koo gis mu mu nangu ab safar wala mu noppi ci naka su dul noonu ci noppi ngir ki ko def da koo jege du ci noppi ngir liñ def dafa tuuti saa ñu defee naka su dul ci saas day àtt su mel la mi joon mi ngi nettali ne am na bis ci njaareem waa barsàq yi toog am benn soxna bu leen seet si fi siñ baa ngi leen dégg ñu ngi ci am soriwuñ ko lool soxna sa di jëw di jëw di jëw di jëw ba yàgg rek siñ bi gëdd leen nee na bi mu tàmbalee jëw moom waa barsàq yi dañu dañu waxatuñ ndax xam nañ ne siñ bi da koy bañ waaye nee na siñ bi dafa jub gëdd leen rek ñu daw ñoom ñëpp ñëpp daw nee na siñ bi basan gi ndaw sa toogoon da ko indilul taal ko ci keroog ne basan gi mu toogoon nañ ko lakk loolu lu kawe la ci jëw jëw maanaam jëw ni ko tuutalee léegi ak moom mu àgg ko foofu basan gi mu toog la ko taal loolu ci bind yi ñu war a jëlee ci loolu la bokk bokk na ci bind yi ñu ci war a jëlee mooy kilifa diine ak kilifa nga aadama ñu war a jëflanteel mooy noonu suñ bi waxoon rek ni mu doon jëflanteek ñoom mooy di leen laabire di leen wax dëgg di séq ak ñoom jàmm ngeen jaboot gi yenn a ko séq waaye saa bu leen waree laabiré mu laabiré leen bu leen bu leen di laabiré mu leen fàttali leen fi baax ak leen fàttali seen ëllëg ku xool bataaxal boobu mu yónnee woon ku mel ni Ahmadou Makhourédia wala bi mu yónnee woon Samba Laobé Ndiaye loolu fees na ci lool lool lool bokk na ci bind yi ñu ci war a jëlee mooy kilifa kilifa njaboot kilifa akum njabootam rek nu mu war a jëflante ak ñoom mooy li sëñ bi bataaxal bu mu bindoon yónnee ko mag ñëpp la doon bind ne nañ ko jàngal ndax da ko bëggoon a jàngal te fekk ko fi ne soxna Fatou Tuuti Diop gis ngeen sëñ Mame Lamine nee na bind na juróomi kaamil waa barsax yi daanaka ñoom ñëpp noonu lañ mel loolu lépp di wane ne daana yittiwoo lool njaboot gi ñu di leen jàngal ak ñu am xam-xam ñu xam seen xam-xamu kon su ma bëggee tëj rek ci juróomi minute mën nañoo wax ne rek euh, bind yi ëpp solo daal yi ñu mën a jàngee ci dunduk sëñ bi mooy jullit ñi war nañoo fonk mbokk jullit gi dox seen diggante war nañ ko fonk war nañ koo bàyyi xel xam ne euh, suñ borom a leen ko boole te lu ñu war a sàmm la jullit ñëpp ay mbokk lañ ndax loolu suñ tubaab di wax naan xot ummatal mustafa an kulli mafsadatin wal tarxamil xalxa yaa man jaddahum badaa nga xam ne day sax xeetu yu saasam di wax ne mbindeef yëpp rek euh, yow mi nga xam ne seen maam aadama yaa ko bindoon na nga leen yërëm ñoom ñëpp kon loolu bind la ndax am na fu muy waxee naan chaxalat ni ibadatu rabbil alamin wa xidmatu xayril alamin wa lishtigaalu bi masaalihil alamin an nisaa'il jaamu yàlla liggéey yonent bi salaam ak jëriñ bindeef yi ñett yi ñoo tax ba taluma di mbiccoo ak di mbaaloo loolu bind la ci ab murit war naa fex boo tam jot war nañ cee jàngee ni ñu ko waxee sànq nit ku nekk mu dégg jamonoom xam fi jamono toll muy doxee noonu ndax li Sëñ waxoon nañ àdduna ab tëli la ab tëli la tëli bi nag nga ko fekk rek noonu nga ci mën a dawee boo fekkee ay pax ci ay pax ngay daw boo fekkee mu tàlli ci lu tàlli ngay daw boo fekkee ay doodaan ci ay doodaan rek ngay mën kon jamono ju ne xam ne mbir yi dañ ko war a dëppale jamono wàññiwu ci dara nañ tënku rek ci njàngaleem lislaam wattandiku lépp lu jëm ci parparloo ci wàll pas-pas ak diine ndax sëñ bi ne woon na man itaxasa inna wa innama fala yuaadi muslima maanaam inna cheytaan lakum aduwwun ak innamal muminuuna ixwa ne ñaar yi ku ko bàyyi xel doo noonoo kenn mooy seytaan li alquran wax ne seytaane seenum mooy seenum noon ne noonu bi leer na ak li mu wax ne jullit ñëpp ay mbokk lañ ak li mu wax ne fala tuaadu man raaytum faahu yuxriju laa ilaha illa allah képp ku ngeen gis muy wax laa bu leen ko noonoo na ngeen ko def na ngeen ko def mbokk kunu muhibbina kunu muhibbina al xuyuura li jamia xalqi ilaahina al muqaddimi al badia mbindeef suñu borom yëpp na ngeen leen yéene yiw te na ngeen leen yéene ak mbaax war nañoo jàng ci mbindum ci dunduk sëriñ biit jikko ju rafet xeex ñàkk xeexuk réer xeexuk réer sëñ bi lim sampoon ci ay daara lim wutoon ci ay téere xam ngeen daara ji sëñ Mbàkke Buso nee na sëñ bi lim ci dajale ci ay téere kenn mës koo gis yoo ci gox bi muy daara ji nga xam ne bëggoon na ko indi fii ci Touba te Cheikh Mouhamadou Mountakha ubbi ko nii muy lu am solo ñuy ñaan mu mu yàgg fi loolu te ànd ak wér moom sëñ Mountakha ba fekk njëriñu lu bare bari ci daara ji daara joojoo yeneen ñi fi nekk yëpp muy azhar muy yoneen yëpp yooyu dafa dugg ci li nga xam ne lu sofu la ci bind bi sëñ bi jàngale woon ci xeex ak réer ndax loolu moo ko fi indi woon muy inni ujaahidu bil ulumi wa bit tuqaa mooy ci xam-xam jikkoy rafet ci lay ci lay ci lay liggéey yàlla su ma doon tënk rek ndax waxtu wi sax maa ngi jàll benn ba ñaari minutes mooy ne daal dundu Cheikhul Khadim gi dund gu barkeel la dund ku fees dal njëriñ la dund goo xam ne kenn mës sa gis lu ni mel ci njëriñ ci yiw ci fees dell ak mbaax ci fees dell ak ay bind yu ñu mën a jariñoo loolu taxoon na ba mu waxal boppam ne xustu xayaatan laa tura li xayri mujizatan baanat li usni xayri dund gii ma suñ borom defal gu ni mel kenn dootu ko gis ci kenn ne loolu nag suñu borom defaluma ko man waaye dafa bokk ci xar baax yi mu defal yonent bi sallallahu alayhi loolu ci bind bu ñuy jëlee ci dunduk sëriñ bi ci la bokk ak li mu waxit ne baana li kulli man ko wilaaya kaw nii li rabbil alamina aaya képp ku am toq ak toq ci ci ci ci xam dara ci suñu borom ak ci ndimbalam xam nga ne man ci kéemtaani suñu borom yi ci laa bokk wax ne la ashukku abadan fii kaw nii jaaral badiyi ajaban lil kaw nii du ma sikki sàkk mukk ci ne dëkkaaleeb suñu borom laa te damay sax di doon kéemtaan ci mboolem bi def yëpp Sëñ Tuubaa mooy kéemtaan goo xam ne loo ko gën a xam mu lay gën a yéem Sëñ Tuubaa loo ko gën a xam mu lay gën a yéem portable bi bi muy doog a génn di foto da doon yéem ñëpp léegi kenn ñëpp xam nañ ko miin nañ ko waaye Sëñ Tuubaa safaan bi la loo ko gën a xam di ko gën a jege mu lay gën a yem kon nag li ci am solo rek mooy ñu xam ne daal suñu borom bi muy séddale ñun ñii bokk ci waa kër sëriñ bi sédd nañu fàttewuñu te sédd nañu lu rëy sedd nañu cër boo xam ne ku ko bokkut ak ñun am na lu ñu la gañee ndabul suñ tubaale ku ci sukk dara rëccu la kon nañ ko jàpp ak suñu téeméeri loxo bañ cee dellu ginnaaw xam ne euh, koo xam ne boo taqee ci moom texe àdduna ak alaaxira euh, bu la ci suñu borom boole war nga koo sant niñ koy sante nag mooy defar suñu jikko kenn ku nekk ci ñun fexe ba mel melokaan woo xam ne ku la gis xemmeem sëriñ bi loolu rek mooy li ñu mën a defal sëñ bi sëñ bi amul lenn lu ñu ko mën a defal fi ne lu dul defar suñuy jëmm ba ku ñu gis xemmeem sëñ Tuubaa te loolu kenn ku nekk ci ñun rek mën na ci dara li seen laal waxoon ne ku ne da ngay jàpp ne aw sayu matt la kenn attanu say wi waaye ku ne da nga ci yor genn matt goo xam ne booy tëdd gàdd ko booy taxaw gàdd ko booy toog yor ko booy nelaw gàdd ko ca kaw waaye bu mu laal suuf mukk mu li Sëriñ Muntaxa waxoon ne bu mu laal suuf ñu koy ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd ak wér moom Cheikh Mahamadou Muntaxa ba yéene yi mu bëgg a defal bi yëpp mu àggale ko ñoo maa ngi siyaare kilifa yi fi teew yëpp di ko tàmbalee ci suñu waajur sëñ Hamza Mbacké ak mboolem kilifa yi fi teew yëpp wax ji xam naa jaxasoo na li ma waajaloon it wax dëgg euh, matut àggut xëy na it mbokk yi niñu ko doon xaale waroon naa gën nii waaye rek moom mi ngi noonu euh, wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu tabarakallah